mbokki xarit yi ci ànd bi ak euh, teewlu rawatina taamu gi ngeen taamu suñuy programme ñu ngi leen di dalal jàmm ci ce nouveau numéro de votre marque sport sport sur 7 di rendez-vous bi ñu leen di proposer tous les dimanches à 21h sur la 7TV ñu jégalu un peu nag ci retard bi donc c'est parti euh, tey nag ñu xaw a wéet tuuti ndax l'international mi ngi woon ci beneen boor bi ci liggéey bi ndax sànq gis ngeen liggéey bu am solo bi nga xamante ne production bi proposé na leen ko euh, fële ci direct bi amoon entre rencontre entre le gouvernement et euh, la jeunesse rawatina jeunesse bi nekk fi nga xamante ne moom mooy la banlieue de mais Alaaji Grégoire est là Alaaji maa ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm ci dimanche bi. ma lay fay bu baax a jàpp tey ziar la tamit ziar bépp sénégal boo xamante ne jamono ji ñuy àddu yaa ngi teewlu nuyu bu baax a baax tam képp koo xamante ne yaa ngi safoo lii di sport sur set jërëjëf alors euh, tey nag au menu de ce nouveau numéro de votre MAC euh, Sport on va revenir euh, largement ci passation de service bi amoon diggante kii di Elimaanu jëwriñ yi amadu Ba actuel ministre des sports ak ki fi nekkoon di Yankhoba bu buñ ci jógee ñu dellu si waat ci wàllu làmb ndax ñu ngi jëm ci événement bu am solo muy drapeau du chef de l'État ce sera du 12 au 14 mai prochain incha allah fële ca Ndargéej bu ñu ci jógee nag dinañu yaatal waat ci CAN U17 bi euh, déroulé wu euh, fële ca Algérie rawatina avec euh, ce parcours exceptionnel des protégés de Serigne Saliou Dia trois matchs trois victoires waaye bokk na ci métronome équipe bi Amara Diouf le capitaine de cette sélection cadette dem nañ nag dellusiwaat nañ ci say seeni pas ki nga xamante ne moom mooy le métronome de cette équipe tout à l'heure nous allons revenir largement ci académie bi ko formé muy Lions Foot c'était Solar FC désormais c'est Lions Foot dinañ ñëwaat ak le fondateur Adi Diouf dinañ ko ndax kepp ak 48e euh, édition Coupe Saint-Michel qui s'est déroulée hier au stadium Marius Ndiaye waaye ñi ngi jëm ci ndaje bu am solo ci avenir u basketball bu Sénégal maanaam bal orange bi looloo waral tey ñu am mbégte loolu ak contenté dalal fi koo xamante ne si une aussi euh, de cette discipline ancien international euh, sénégalais d'ailleurs moom laa njëkk a nuyu sax dalal muy Jo Lopez euh, directeur de Sud Académie aussi directeur maa ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bi. ancien yi. man ah. su may commencé émission damay tudd suñu ancien yi les champions de mm-hmm. euh, Lopez dinañ ñëwaat ak yow bu ci kanamee ndax faw nag ñu def diagnostic bi ndax ñu bëri dañu gis ne jafe-jafe am na ndax Sénégal bi ñu xamoon mu nekk sur le toit de l'Afrique jamono ji mu am ay jafe-jafe rawatina ci sélection masculine bi faaw nag ñu xool jàngat bi on se regarde des yeux dans les yeux xool nag fan la yëf yi sookee buñ ci mënee ut saafara ñu ut ci saafara ndax sànq maa ngi koy wax ñu ngi jëm ci assemblée générale élective très importante ñu ngi aussi ci plateau yi ak ki nga xamante ne moom mooy Adi Diouf c'est le papa de Amara Diouf qu'on ne présente plus ancien joueur euh, de la SCIB euh, ancien joueur euh, de des Niayes n'est-ce pas muy euh, actuel AS Pikine alors euh, désormais c'est le fondateur de Lions Foot ñu ko xam FC semaine bële wax nañ ci moom tey ñu am mbégte mu nangu ñu suñu invité Diouf maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waaw maa ngi lay nuyu Adja. Mhm. di nuyu ñu ma seqal plateau bi. Mhm. waa di leen ziar di vraiment di kontaan ci invitation bi. di nuyu képp nga xam ne yaa ngi seetaan képp nga xam ne yaa ngi bëggee wax dëgg yàlla euh, centre FC Solar waaw di nuyu ñëpp waaw bàyyiwuma kenn. jërëjëf euh, merci beaucoup Tall ñu ngi ñëw si yow mais balaay loolu Grégoire très rapidement on va parler de cette passation de service entre Amadou Ba. chef du gouvernement, désormais aussi avec cette casquette de ministre des Sports, et l'ancien ministre, euh, l'ancien patron du sport sénégalais, Amadou Ba nga xam ne nag jamono ji mu ngi rek di cumuler ces fonctions-là ginnaaw nag bi nga xamante ne nemmeeku nañ cette démission de l'ancien euh, ministre des Sports moom mooy Yankhoba Diattara suite nag li nga xam mooy ce départ d'Idrissa Seck tey li ñu nemmeeku rek moom mooy entre les deux euh, la passation de service a été riche moo nekk son bilan en sept mois mois ak li nga xam moom mooy projet yi ak lépp loo xam moom la ko njiitu réew mi sas bu ci jógee tam l'engagement euh, de Amadou Ba euh, lépp jot nañu ko ci nemmeeku ñu seetaan ko ci ñëw. Pendant la Coupe du Monde Qatar 2022 par exemple, j'ai pu combien le chef de l'État, son excellence Macky était attentif et sensible à tout ce qui touchait le Sénégal à travers l'équipe nationale. C'est l'occasion donc pour moi, Monsieur Premier ministre, de vous demander de transmettre toute ma gratitude et toute ma reconnaissance au président de la République, son Excellence Macky Sall, qui m'a donné l'opportunité de servir, servir mon pays au niveau le plus élevé de l'État. ministre, j'ai pu apprécier le degré d'engagement et de patriotisme des sportifs sénégalais. Si nous avons pu obtenir toutes ces récompenses, tous ces trophées, c'est grâce à l'engagement patriotique des sportifs. vraiment sénégalais qui nous ont permis Je voudrais vraiment les rendre hommage. En je dis merci à toute la famille sportive qui m'a témoigné de sa disponibilité dans ses différentes missions, aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger. Pendant la Coupe du Monde Qatar par exemple, j'ai pu apprécier combien le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, attentif et a ah, tout ce qui touchait le Sénégal à travers l'équipe nationale. C'est l'occasion, Monsieur le Premier ministre, de vous demander de transmettre toute gratitude et toute ma reconnaissance au président la République, son Excellence Macky Sall, m'a donné l'opportunité de servir, servir mon pays au niveau le plus élevé de l'État. Monsieur ministre, j'ai le degré d'engagement et de patriotisme des sportifs sénégalais. Si nous avons pu obtenir toutes ces récompenses, tous ces trophées, c'est grâce à l'engagement patriotique des sportifs, vraiment sénégalais, qui nous ont permis ces victoires. Je voudrais vraiment leur rendre hommage. En somme, je dis merci à toute la famille sportive qui m'a témoigné de sa disponibilité dans ses différentes missions, que ce à l'intérieur qu'à l'étranger. Le Sénégal nous a engendrés et nous ne pouvons jamais lui rendre ce qu'il nous a donné. Nous devons reconnaissance à la nation et nous lui donnons le meilleur que nous-mêmes. J'en également en étroite collaboration avec la Fédération sénégalaise de football de faire étudier dans les meilleurs délais le de charge de l'organisation de la Coupe d'Afrique Et si les conditions sont réunies, je soumettrai la proposition de candidature du Sénégal à la très haute appréciation du président de la République. Je puis vous dire d'ores et déjà que nous avons déjà fait des dispositions diplomatiques pour que la candidature du Sénégal, qui est déjà acceptée par le président de la République, soit déposée dans les meilleurs délais. Après Sénégal le moment est venu, au regard des performances exceptionnelles du football sénégalais, d'organiser pour une seconde fois une Coupe d'Afrique dans notre pays et d'améliorer encore sensiblement le niveau de nos infrastructures et de nos équipements sportifs. En matière de compétition internationale, il importe aussi que les arbitrages conséquents puissent être réalisés dans les délais requis en étroite relation avec le comité olympique et les fédérations et regroupements sportifs, de sorte à disposer dès le début de l'année d'une planification et d'un calendrier annuel de participation du Sénégal aux compétitions sportives africaines et internationales. Voilà, c'était la réaction de Yankhoba Diattara, des Sports, et Amadou des Sports, des propos recueillis par Djibrilou Diallo et ci gën a ñaari kàddu yooyu mooy Grégoire organisation prochaine euh, de la CAN 2027 depuis euh, Sénégal 92 Sénégal gëj na en euh, euh, dalal euh, benn compétition de cette envergure maanaam une coupe d'Afrique senior ñi ngi naan dina am ni ñu naan du am de toute façon on verra dans les jours à venir n'est-ce pas mais bien parce que boo xoolee tey euh, jafe-jafe bi nga xam ne Sénégal mu ngi koy drainer boobu ak léegi ce sont les infrastructures donc y a énormément tey de projet donte Sénégal mu ngi gagné tey amaguñu tey les infrastructures qu'il faut pour que le Sénégal puisse tey organiser une compétition de ce genre loolu noonu benn la de deux aussi on est un en retard par rapport ak li nga xam moom mooy le le truc d'organisation parce que certes le Sénégal te tey euh, mu ngi def des résultats sur le plan euh, africain mais ci euh, côté management bi mais dafa des ba léegi parce que organiser une CAN ça ne se décrète pas ci ci diiru ay deux trois ans yam na liggéey bu fi jot am Matar Ba dem na ci délai yi mu demee aussi am na projet yu mu nekkoon en cours Yankhoba tara ñëw na yeggal yooyu noonu malheureusement en sept mois il était en train de faire un travail fantastique mais yeggeewu ci mm-hmm. donc tey pour mettre en place une coupe d'Afrique des nations c'est un de charge boo xamante ne nii dafa laaj suivi bu gudd donc nous n'en sommes encore là parce que tey euh, li nga xam ne moom la ñu jublu pour man actuellement nit ñi présidentielle moom leen gën a yitteel sax ni tey ñu taxaw ci programme yoo xam ne jëm na ci organiser une coupe d'Afrique donc on n'a pas les stades les sites doyuñu tey côté infrastructure boo xoolee pelouse naturelle lu ñu am moom mooy le stade Maître Abdoulaye Wade Léopold Senghor pareegul Demba Diop ñu ngi door a recommencer waat tey ces travaux là donc euh, il faut minimum tey 3 4 villes yoo xamante ne tey daañu ko mën a accueillir mais ñu bëggee tey jàpp lépp ko au Dakar. pour man ça ne fera pas l'affaire donc et euh, ça ne mu ngi noonu. une coupe d'Afrique euh, ci benn ville euh, ou bien benn compétition de cette envergure benn dëkk lañ gisagum mu réussir ko muy Qatar te Qatar ça se ça se comprend mais vous au niveau de votre parce que da nga bokk ci union. Euh, des basketteurs et basketteuses euh, sénégalais mu ne kuréel boo xamante ne da ngeen ko teg aussi pour gën a suqali li nga xamante ne moom mooy discipline bi ñu jëm ci benn assemblée générale euh, amu leen xel mu te tey ou bien am ngeen xel mu dal par rapport à ce changement à la tête du ministère des sports bon pour ñun changement bi c'est positif dans le sens où état bi mu ñuy wan que sport dafa important ci Sénégal mm-hmm. léegi concernant basket bi nag suñu xel dalul toujours parce que lu état bi bëgg a def tey ku jiitee suñu fédération mu ngi def leneen la ñu war waxtaan tey loolu j'aimerais bien toog ci waxtaan si parce que euh, état bi mu ngi jël ay décision Yankhoba Diattara a fait un travail fantastique malheureusement pour des raisons politiques dem na mais il bi commencé commencé noonu def ay affaire yoo xam ne que mënoon a jàppale suñu discipline léegi on va continuer dinañ continuer di waxtaan ak autorités yi pour wax leen na ñu lu ñu xam te lan la ñu war a def pour suñu basket dem ci kanam parce que tey basket bi demul fenn demul fenn c'est la vérité d'accord dinañ si ñëw euh, bu si kaname parce que aussi euh, mun nañ la wax euh, Jo Lopez on joue le championnat est régulier même si daaw c'est vrai championnat bi xaw na tiire en longueur et ren ñoom seen objectif mooy ñu gën ko calibrer par rapport ak li nga xamante ne moom mooy calendrier bi mais loolu dinañ si ñëw bu ci kaname alors Adi Diouf par rapport à ce changement l'État wala l'administration c'est une continuité sa xel dal na si vraiment euh, ci sama xel euh, dal na ci. Mhm. parce que je pense que ni euh, xam nga lu ci indi waaw mun na mun na mun na mun na mun na relever de man vraiment sama xel dal na ci loolu daal. d'accord alors euh, Grégoire euh, on rappelle aussi que am na des acteurs de. demain lundi ndax sànq maa ngi koy wax ñu ngi jëm ci événement bu am solo ce sera le 12 Saint-Louis moo nar ne capitale de la lutte. chef de l'État foofu lañ koy amalee euh, kan mooy ñëw teew peut-être le premier ministre actuel ministre en attendant ñi ngi ñi ngi ko waaj mu nekk événement bien sûr Adja muy loo xamante ne tey yaakaar naa tous les férus de la lutte simple dañu koy xaar parce que daaw gis nañ engouement bi nga xam ne am na ci autour ren ñu jël ko yóbbu ko ba Saint-Louis mais terewul ba léegi communication bi nga xam ne war na ñu ko ci def donc événement la boo xam ne ñu ngi ko jàppoon ci njeextalu ayu bés bi mais dañu ko mujjee poussaat pour des raisons yoo xamante ne donte dugguñu ci biir mais li ñu ciy for rek ci yooyu ba moom mooy ministre Mansour Faye bi nga xam ne financièrement mu ngi leen di ci gunge moom euh, événement bi ko bëgg a teewe donc ci ci trois yi nga xam moom nañ ko jàppoon fii euh, donc du ko fa fekk mais non c'est un événement boo xamante ne actuellement mën nañ ne euh, moom mooy l'université ci wàllu bëre dóor parce que bëre dóor bi ñoom euh, ñi koy toj yëpp defe naa fii la ñu génne te daaw boo xoolee y'a beaucoup de révélations yoo xamante ne tey jii bu ñu seetloo suñu équipe bi ñu yóbbu tournoi CEDEAO ñu ci bëri donc fii la ñu génnee en terme tey de retombées je me dis tey la lutte sénégalaise à bien sûr besoin de ce genre parce que boo ko xoolee ce sont des champions xamante ne tey ñoom non seulement image bi nga xam ne ñu ngi koy wér tey ci wàllu làmb ñoom ñoo koy def parce que non violence bu ñu koy wax fii nit ñi dañuy sangu ba set toog amul sànnante kurpeñ amul leneen donc ambiance bi dina am lépp dina am donc c'est un événement boo xamante ne dafay ñëw porté waat tey la lutte sénégalaise ci beneen plan donc jël ko yóbbu ko Saint-Louis ça montre que aussi la lutte ñu ngi koy seetaan partout tey au Sénégal alors euh, c'est un événement majeur ñu leen koy fàttali ce sera du 12 au 14 mai inchallah ce sera la 23e édition on sera édifié au terme de cette compétition qui va succéder à la région de Dakar ndax région de Dakar moo jëloon drapeau bi ak ki nga xamante ne moom mooy Serigne Ndiaye 2 te mu nekk fii ci écurie Fass looloo war a sànq gi rek waar ne université la ci ñi nga xamante ne dañu ciy jógee dem ci li nga xamante ne moom mooy lutte avec frappe bi peut-être que demain euh, njiitu réew mi bu dajeeg les acteurs de la lutte moom ci boppam mun na ñëw présider li nga xamante ne moom mooy jour bu mujj bi ñuy disputer final ak innovation yi nga xamante ne andi nañ ko ci depuis daaw fa li nga xamante ne moom mooy ci Diourbel avec euh, le nouveau bureau dirigé par euh, Bira Sène bu ko defee ñu daal di ñëw nag euh, ci li nga xamante ne moom mooy sunu sujet football waaye dañ koy tàmbali ak une note triste Grégoire Ngom avec cette icône du football sénégalais et Jules François Bocandé on se rappelle tristement en 2012 euh, ci la ñu wan ginnaaw à jamais mais il reste gravé dans nos cœurs bien parce que même euh, tey nekkatu fi mais pour man c'est l'absent le plus présent parce que tey fu ñuy wax histoire football Sénégal on se rappellera toujours de cette tête mais également li ñu mën a jàpp rek tey moom mooy bu ñu toogee tey di wax ay ñoom Sadio Mané yëpp koo ci wax na naan j'ai pour référence un certain ne bu ñu toogee tey bay waxtaane football bokk na ci ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo lancé wala bokk ñoom ñoo tax askan wi ci bëri toog bëgg football c'est lox tey ñu ngi koy fàttaliku bokk naa ne euh, tey ji buñ koy xayma rek moom mooy Euh, le Jules François Bocandé bi nga xam ne bu ñuy wax la crinière de lion pour man crinière bi dëgg foofu la féete mm-hmm. donc euh, c'est c'est boo xamante ne ni bàyyil nañu fi une journée noire mais également en termes de management nekkoon na ci ñi nga xam ne ñoo doon booster cette génération euh, de El nga xam ne Sénégal disputé na ko moom Jules François Bocandé bokkoon dans ne ñoom la ñu porté tey euh, à cette place de quart de finaliste bi nga xam moom la ñu am donc di ko jàllewaat rek mbooleem askanu tàggat yaram mais également toute sa famille et tout le monde du football Absolument. En tout cas, il nous manque énormément. Adi Diouf, vous avez certainement vu jouer euh, Jules François Bocandé ñoom nag say aîné lañ ñoom ak ñoom Lamine Ndiaye ak yooyu euh, mais lan nga ñu mën a wax ci ce grand joueur ce monument là du football africain duñ ne sénégalais sax mais africain voire mondial hein. parce que Bocandé c'est un an mu joué Euh, gis naa ko Demba Diop mu joué Casa Sport contre Jeanne seen final boobu. cette fameuse finale la seetaan naa ko mu joué boobu nekk naa xale yi ànd ak suma grand frère. parce que moom bokk na ci ñi tax ñun ñu ko gën a bëgg a fubal. <laughs> que dañ ko ci moom lañ doon roy gis ko ak euh, ni mu amee woon engagement ci football bi ak ak fu mu yóbbu Sénégal taxoon ba bokk na ci ñi tax daal ñun ñu gën a bëgg a donc joueur la bu nga xam ni. Euh, joueur bu am jom la woon joueur bu bëggoon Sénégal joueur bu nga xam ni doo koy seetaan vraiment euh, da ngay kontaan donc vraiment ñu ngi koy ñaanal euh, fu mu jëm mu gënal ko fi mu jógee waa mu nekkoon nag nit bu bu bu marqué footballu Sénégal daal. alors Essa May qui nous a quitté en 2012 c'était le 7 mai. Euh, DG di, di, directeur euh, quand on parle de Jules-François Bocandé vous pensez à quoi à ah, c'est rasta c'est lox comme on dit en français. Uh-huh. Euh, je l'ai jamais vu jouer en personne mais sur les télévisions je l'ai vu jouer et il a été fougueux c'était un battant il était euh, un homme de sa génération qui a beaucoup inspiré les jeunes comme euh, la nouvelle génération de de El Hadj Diouf et la génération d'aujourd'hui les Sadio Mané également euh, ñi ngi koy ñaanal ni ko Adi Diouf waxee ko xamante ne Sénégal rek a ko ñor parce que léegi xëy na équipe nationale yi mun nañu oote te ba léegi c'est difficile seen joueurs yi ñëw ñuy évoluer ci championnat européens yi bi c'était très très difficile il a toujours porté son pays euh, ki nga xamante ne moom mooy Jules François Bocandé on espère immortaliser nañ ko mais dinañ ko gën a fàttali yeneen ak ñeneen génération yi nga xamante ne ñi ngi ñëw bu ko defee ñu ñëw ci ñoo xamante ne fukki at ak juróom-ñaar la seen at toll jamono ji nag euh, ñi ngi fële ci Algérie di défendre les couleur nationales ñu def nag benn parcours sans faute ci li nga xamante ne moom mooy phase de groupe bi Grégoire. ak set bi Marca Diaby Diaye on se retrouve tey jii ak les Lions qui sont tey cette meilleure attaque de ce tournoi ndaw yi Serigne Saliou Diaye ñoom def nañ nag un parcours remarquable surtout en battant nga xamante ne ah, moom mooy l'Algérie mi dalal cette compétition là naka la ñuy duggee ci compétition bi ba noonu ñuy jeexal cette phase de groupe ci groupe A bi ñu teewlu ci. ndorteelu Coupe d'Afrique bu bëri sas la woon ci gaynde yu ndaw yi léegi ñoom ñi bokk ci groupe A bi ak équipe bi ko dalal di Algérie Serigne Saliou Dia ak i ndawam ci seen jongante bu njëkk amoon sax match bu ubbeeku bëri occasion lool la ci ñaari pàcc yi waaye rek attaquant yi mujjewuñu lakk caax yi lu ni mel ba ci sax jongante ba bi bu réew Sénégal ak sax ba ñu amee juróom-ñaar fukki simili ak tukki fàllu juuf mi nga xamante ne nii ràññeeku na lool ci bile ko jongante ba ca gaynde yu ndaw yi jógee daal di rek wutale jongante ba ca gënoon a am solo nekk seen diggante ak Algérie mi dalal yëf yi mu di ab jongante boo xam ne amee na ci stade boo xam ne foofee la Sénégal gàddoo CHAN bi ci ñaareelu bëccëg bile Serigne Saliou Dia doon xaar rek jongante bu ubbeeku bu métti sax diggante mag Algérie occasion yi bëri loola réewug senegal daal di rek njëkk a jël yëf yi ci loxoom dafi jéego ci biir camp yi Serigne Diouf mi nga xam ne moom moo ca féete di def sax ay jéego yu am solo waaye gaynde yu ndaw yi le nañu ko defoon ci seen uppa jongante bu njëkk lijjanti yëf yi laata sax ñoo wutali pàcc bu njëkk bi ñaareelu uppa pàcc bi yëfi sax gën a ubbeeku ba Sénégal mujjee làbbali ñetti bal ci dara ginnaaw si seen upp ñetteelu jongante doon sax loo xamante ni moom moo gënoon a am solo ci bilekk phase de groupe donte Sénégal qualifié woon na yëf yi desoon sax ak enjeu ndax Somalie desoon na lu mu waroon a mën a joué ngir daal di qualifié jongante bile doon loo xamante sax jongante la boo xam ne njeexitalam fës na lool la ci ñetteelu ko bëccëg bile voilà taxawaay bu am solo bu gaynde yi am fukki attaque juróom-ñaar Greg ma bàyyi la ak Adi. bien sûr euh, Adi li ñuy wax rek moom mooy on retiendra que tey cette poudre bi nga xam ne ñu ngi koy waxtaane moom mooy Amara Diouf euh, ci biir euh, tournoi bi il est tey sorti ki nekk nga xam moom mooy le meilleur buteur donc ñu ci bëri ñu ngi wax tey sa façon de jouer mais ce qu'on retiendra toujours c'est toujours ce dernier geste maanaam booy bi du patiner ci kanamu kaay en fait donc ce travail là on nous dit formation boobu noonu jaarul feneen fu dul ci yow booy bi naka nga ko préparé en fait. waaw euh, booy bi lu ma ko préparé mooy que euh, moom laay wax ma ni moom bi muy am deux ans mi ngi toog ci banc de touche maa ngi corsé di ko di ko gàddu ci banc de touche dafa dafa xëy nu ñu ko mën a waxee mooy que euh, gis ay bal gis ay pulo gis ay dosaar ci la ci la ci la ci la nàmp ci la jàngee dox. si balla jàngee dox ba ba ba nu mu commencé donc euh, ma amoon yéene ci moom mu liggéey parce que dañ ma doon wax mënuloo liggéey ak xale bi da nga koy jox keneen parce que comme sa doom la mais jàpp naa ne race bu ma buggoon mu nekk il fallait que man moom ma mën ko entraîner pour mën a am lu mu bëgg donc euh, comme mu commencé dafa ne góol lay def man maa ko ërtal ne ko fii kenn du fi nekkee góol donc da nga war a suivre les de votre papa. man ko da nga war a nekk attaquant parce que góol doo ko nekk. parce que maa ngi nuyu benn kii Passamb moo nekkoon góol ñoom ñu ñu ñu ñu bëggoon ko. Mhm. donc ñoom ñëpp ñu bëgg a nekk góol. donc ci loolu laa ko commencé di ko di ko entraîner su ma ko joxee muy jongle jongle deux trois bal bi daanu par sama xel ma ni man gëwuma mu am jeu mais man ni naa liggéey ak moom rek en attendant ba mu commencé di jongle ay dix dix dix. bu ma bu ñu jógee entraînement bu ma ñëwee kër ga dama koy tegal ballon mu koy dóor ci mur bi di ko contrôler euh, di dóor di contrôler di dóor di contrôle ba defar ay contrôle am ba ma sentir ni contrôle yi commencé na baax ci biti ma def benn benn benn espèce u camp def ci angle yi beneen angle bi euh, weccee ko cent franc ay vingt cinq teg ko ne ko heure boo ko dugalee ci équerre bi fële am nga juróomi dërëm ci noonu lañu commencé mais boobu ba léegi ñaata at la am ba léegi boobu mi ngi ci ay six ans. d'accord boobu mi ngi mi ngi commencé di màgg am six ans ma koy sentir mu koy dóor di ko dugal ba ma gis ni commencé na am maîtrise boobu donc bu ñu demee match coup franc yi heure bu ko tegee daf koy commencé di di di dugal. mais léegi weccet yooyu ña ña ñaata la ci daan mujj gi gagné. yëpp lay jël. lépp lay jël de lépp lay jël. cent franc yi nga wecceeku yëpp. cent franc yi damay def euh, euh, comme ma jël cent franc def ko quatre vingt cinq. waaw tegal ko mais. bala mu fa jógee dina dina dina dina récupérer cent francs donc ci loolu lañu commencé liggéey ma dem ba sentir ni commencé na nag am yenn yenn yenn kii même bu amee mat tey bu ñuy ramassé mat si Pikine bu ñuy ramassé moom lu mu gën a opté mooy dem toog ci côté camp gaa ma sentir ni kii am na lu mu bëgg parce que foofu muy toog noonu mu ngi seet gardien bi nan la ko tout le temps nan la ko gars yi di dugalee bi c'est-à-dire euh, yóbbu naa ko danoon euh, tournoi danoon bi ñu demoon. Mhm. mu nekk meilleur buteur c'est pas la première fois moment boobu mi ngi am 9 ans mu nekk meilleur buteur tournoi danoon bi ak ak ak set bi. la la kon moom avant génération foot dem na beneen. dem na danoon njëkk na dem tournoi danoon. dem na danoon. d'accord euh, kii def na tournoi danoon dem na Italie def na benn tournoi Italie avant muy ñëw génération foot après ma yóbbu ko jàmbaar yóbbu naa ko jàmbaar. ba mu jàll jàmbaar. Mhm. waaye def nañ test yi ba mu jàll. après par la suite ñu ne dafa tuuti xale la dañ koy bàyyi comme moom am na sens ñëwaat test xale la nañ ko bàyyi mu xaar. en ce moment il avait 9 ans boobu boobu génération foot mu ngi jonkan moom da ko xaar donc dama ko dañu ci jour bi sana terrain ak euh, salaam la woo ma téléphone salaam dama indil booy bi ñun soxla nañ ko donc ci la dem dugg génération foot loolu moo ko génnee moo ko génnee jàmbaar jommal nañ ba jox ko équipement yi ak yëpp mais malheureusement après ñu ne dafa tuuti mu mucc dem kii parce que quelque temps bu ñu ko gisaatee ñoom dañuy wax déedéet nan la mën a màggee màgg màgg bu mel <laughs> euh, mu nekk euh, benn nit bu nga xam ni tamit euh, dafa am lu muy lu muy liggéeyaale dafa am lu nekk ci ci ci ci ci xolo mu koy liggéeyaale. mooy mooy que moom bëgg na tey ji Euh, man nu ma sonnee ci football bi moom mu mu mu réussir ci donc soo ko gisee muy football da nga xam ni kii am na am na am na lu mu denc. ah d'accord c'est-à-dire reconnaissance. bi waroon am ci yow. parce que ci fàttali aussi euh, foofu il faut ñu teg fa baaraam après yaa ngi ñëw ak Grégoire dañu bëggoon tuuti nga fàttali ñu un peu sa carrière en tant que grand attaquant. parce que Mayoro Gueye fii la toogoon. il y a une semaine jour pour jour il est revenu sur le joueur que vous avez été le grand attaquant malheureusement xëy na lii euh, sa doom am chance bi Amara porter le drap euh, le le maillot national vous n'avez pas eu cette chance mais vous étiez un grand joueur ci tank rek boo ñu doon revenir ak un peu ci sa palmarès balaa ma lay bàyyi ak euh, Grégoire nga continuer waat ak Amara. waaw man sama palmarès man ñaay laa defee sama minime def cadet def junior. après def première année senior jógee fa dem Sodefitex. Mhm. def fa euh, deux ans après bu ma jógee Sodefitex ci laa ñëw ASFA année bi ñuy final coupe du Sénégal ma def ASFA euh, ASFA Wakam final 89 boobu après moo fa jógee ci laa ci laa ci laa dem Gorée bi ñuy finalu bi ñuy jouer coupe d'Afrique bi ñuy finalu ak Jaraaf gagné ko. jouer coupe d'Afrique ak euh, stade tunisien euh, président Cheikh Seck moo nekkoon euh, gardien kii stade tunisien mhm. donc moo fa jógee après ci laa dem Qatar dem Al Shamal club fa laa jouer première division après gaañu fa genou ci laa ñu ubbi école football bi malheureusement mm. Grégoire continue yaa ngi woon ci anam yi nga tàggatee xale bi donc euh, mën nañ ne c'est model boo xamante ne nii wóoluwoo ci woon kenn mm-hmm. mais bu formation bu weesoo am na leneen pàcc boo xam dafa am solo moom mooy encadrement bi mm-hmm. xale la xëy na xamagul lu bëri ci wàllu na mais boo ko xoolee muy football ci as l'impression que c'est un garçon qui a vingt ans ou plus moom mooy football mm-hmm. donc encadrement bi ak hygiène de bi surtout pour un garçon de son noo ko gérer waaw nu ma ko gérer mooy que euh, tey euh, génération foot dafa ma ci dimbali lu bëri parce que depuis bi mu demee à l'âge de dix la dem ni génération foot mais depuis bi mu demee ba léegi ñoom ñu ngi koy gérer vendredi lay ñëw dimanche mu ñibbi mais bu ñëwee ñun dañ koy dañ koy cadré pour muy bañ di génn di taawaalu ci bedd bi donc di teel a tëdd ci loolu lañ ko kii xam nañ ni euh, Pikine dafa xaw a rëb donc loolu moo tax tout le temps dañ koy damay waxtaan ak moom dama koy wax ni football bi. dafa nekk affaire bu nga xam ni yàggul xale nga yaa ngi soog a démarrer te peut-être euh, am na am na lu la yàlla may donc jéem a la gérer mais ñun yàlla dimbal nañ ne nekk na ku nga xam ni dëgërul bopp ba pare dafay déglu tout le temps yaayam day waxtaan ak moom ci lu bari bari bari maa ngi koy nuyu di ko di ko di ko remercier mi ngi ci participer bu baax ci ci ci xale bi waaw donc euh, vraiment. ñun ñu ngi koy ñu ngi koy encadré duñ ko may jàmm daal xam nañ ni mën na am dara ci football bi donc loolu moo tax heure bu ñëwee euh, fuñ ko yem loo foofu la yem nekk na daal ku nga xam ni jafewul ba pare du lu ma ko jur mais wàcce na boppam yaru na chaque jour day jàpp ni mënagul dara. d'accord. alors tout à dina ñëwaat ci témoignage yi Grégoire dafa am beneen question boo ko bëgg a poser ci Amara. non ma dem ci jour. ci oh, modèle de formation bi. parce que mhm. aussi c'est c'est très important dans un pays comme le Sénégal ku ne xam na tey petite catégorie bi lu mu ñu mën a jural xëy na léegi la ñu commencé bàyyi attention ci loolu noonu mais boo xoolee tey ce modèle là bi nga xam ne moom la opté pour Amara tey c'est un boo xam ne c'est assez rare donc est-ce que ñun newul ci loolu a mën a dem léegi. bon euh, naa la raconter euh, bu gaaw euh, il y a deux semaines man ak Aliou Cissé entraîneur équipe nationale que je salue passage ñu toog di waxtaan mu ne ma nu les footballeurs on était toujours inspirés du basket ma ne ko ah Aliou yaa ngi ñuy tonja parce que ñun nag léegi on va s'inspirer on va s'inspirer de vous pour revenir à ta question c'est pour te dire l'importance de la jeunesse et des petites catégories loolu moo amul tey équipe ci euh, fédération sénégalaise de basket dañuy ignorer petite categorie amul benn championnat de petite catégorie ñun ñëpp ñu jàng basket Sénégal dans les années soixante soixante-dix on a commencé par le mini basket comme sa doom dañuy jàngal basket j'avais six ans ou sept ans ñuy ma jàngal basket noonu laa defee ba dugg équipe nationale ba nekk double champion d'Afrique affaire bi c'est on ne réinventer la roue am na fii ba pare on a les cadres pour former la jeunesse mais manquement yi fu mu nekk man nag tey damay wax dëgg c'est au niveau de la fédération xam nga tey suñu xale yi minime yi du ñu compétir cadets yi du ñu compétir. mais aussi ana club yi tamit parce que regardez l'exemple de Amara. waaw si son papa en fait yéen vous aviez. ku ci mel ni. Euh, le le formateur l'ancien coach de l'équipe nationale euh, féminine nga xam ne c'était comme un papa pour euh, pour pour les pour les joueuses da leen da leen doon xool mus nañ fi def sax benn spécial où on nous rappelle que même copain bu lay seet si daf koy daf il était tellement regardant ba day xool sax ñi nga xam te ne dañ leen di dañ fréquenter où sont les encadreurs aussi mais encadreurs yaa ngi fii tey problème bi ci fédération bi buñ ko teg ci benn encadreur ci fédération bi ñoom ñoo organiser euh, championnat ak tournoi des jeunes. Mm-hmm. ñoom ñoo koy organiser te defuñu ko kon les jeunes filles et garçons dañuy frustré dañuy entraîner tous les jours te duñu compétir. boobu mooy problème bi. Mm-hmm. parce que pour pour améliorer ci sport da ngay compétir ku compétirul doo dem fenn ci sport parce que il faut nga compétir comme ça nit mun évaluer ses talents. waaw noonu. Mhm. après au fur et à mesure yi di def ay changement di améliorer mais loolu amul. d'accord te amuñu euh, amuñu compétition au niveau des jeunes. d'accord et ça ça pose problème par rapport à la à la relève euh, donc toujours ba léegi ñu ñëw ci sunu sujet euh, football grégoire on va proposer rapidement balaa ñuy dem à la découverte de Lions Foot fi nga xamante ne mooy cuisine bi ñu toggee joueur bu ci mel ni Amara Diouf mais balaa loolu on va proposer la réaction du sélectionneur de l'équipe nationale cadette Serigne Saliou Dia. mooy soob si naka jaay de cette victoire face à la victoire bi nga xamante naka moom moo tey wane Sénégal am na lu mu war a a jouer tey ci li nga xam mooy seen Coupe d'Afrique des Nations ñu teewlu ay kàddu. l'occasion de féliciter les joueurs et d'encourager de la Somalie a de très bons joueurs. Alors, je pense qu'on avait à faire à cœur de faire un bon match. Ce sont de match piège où tu tu alors que comme nous, notre objectif, tout prendre les matchs d'essayer de grandir dans ces très importants pour Et là, tu vois, nous, on a professionnel qui vient de, qui Donc tous les autres, c'est des Donc ça veut quelque part, ces genres compétition sont les bienvenus pour ces jeunes pour continuer Parce que la compétition est autre sur le plan africain, autre chose encore. Défendre une nationale, je pense, pas donné à n'importe qui. Il y a des 18 millions de Sénégalais Quand on les choisit, ils doivent montrer qu'ils méritent d'être là. Et c'est sur cette valeur qu'on essaie euh, Et je pense que ce le bien, pour l'équipe du Sénégal et pour le Sénégal. C'est juste une motivation pour nous pour imiter un peu ce que les autres sont en train de faire. Mais pas une pression. même si une C'est pourquoi on a l'impression des fois. La pression n'est jamais négative. voilà c'était la réaction de Serigne Saliou Dia euh, ci service communication fédération sénégalaise euh, bu football dinañ ci ñëw ci décryptage bi léegi ak ki nga xamante ne moom mooy président Adi euh, Diouf bu académie Lions Foot mais balaay loolu on proposé aussi aux téléspectateurs la réaction de Abdou Aziz Fall moom le vice-capitaine et c'était d'ailleurs l'homme du match entre ci au sortir de cette rencontre entre le Sénégal et la Somalie. satisfaction bi mu am d'avoir au moins tey remporté trophée de l'homme du d'avoir remporté ce trophée de l'homme du match. je trophée à tout tout le peuple sénégalais à tout l'État technique et surtout à mes coéquipiers parce que c'est un travail collectif. Euh, on n'était pas favori de ce on continue juste de de prendre les match par match parce a actuellement notre première c'était un honneur de remporter ce trophée. Enfin, juste, euh, c'est un travail d'équipe, ça nous fait plaisir d'être premier de la poule. Et on va continuer de rêver aussi et prendre les matchs match par match. On, on va prendre tous les matchs comme on joue déjà. voilà c'était la réaction de Abdou Aziz Fall moom mooy vice euh, capitaine bi d'ailleurs moom ngeen gis ak euh, brassaru capitaine bi ndax balay Amara di génn moom la jox li nga xamante ne moom mooy euh, brassaru capitaine bi dinañ ñëw léegi nag euh, ci match bi xaar gaynde yi ndax benn match la boo xamante ne moo leen di séparer ci une qualification à une coupe du monde de leur catégorie mais balay loolu dañuy continuer ndax Grégoire dafa amoon ci benn lancé bu mu nekk ñu gën a xamle leen ak kan mooy Amara Diouf du ñu def lu dul cette fois ci Grégoire ànd ak sunuy reporter Awa Diallo moom ak Pape Diop ñu dem à la découverte de Lens Foot. merci Raja muy nag san boo xamante ne tey bu ñu koy xayma dalay sax xaw a jaaxal ca nam yi nga xam ne noonu la ñuy tàggatoo parce que tamit tàggatu ay rawatina rek ay xale dafa laaj ay condition mais li ñu fa nemmeeku nag moom mooy ñoom ay ci liggéeyu njàmbarteef kott la ñu nekk parce que conditions yi nga xam ne noonu la ñu war a former xale. xëy na réunir ñu waaye nag ñoom ñu ngi def seen kéem kattan ñu dem xool jàngat awa jàll. juróom-ñeenti waxtu ci suba fii ci bët gànnaaw département bu Pikine ci ginnaaw bâtiment bu mag bii bu arène national am benn terrain boo xam ne woo ci banlieue bu xam nañu ko muy terrain daaru amul pelouse naturelle amul it gason synthétique fii dañuy tàggut seen yaram ci terrain bu bari suuf am ay fas ay charrette ak ñuy toppatoo fas yi. jafe-jafe boobu dañ ko fekk di ko di ko dund parce que gis ngeen terrain bi am nañ problème lu bari mais loolu jéem a dindi teg fee ndax ñeneen jaar nañ fi ñoo xamante ni fii lañ commencé te ñoo ngi feneen di def loo xamante ni nit ñi ci teg seen bët. ci loxoy coach Babacar Thiandoum ak adjoint bii di amat Ka équipe junior ak benn pàcc ci équipe senior bu académie Lion foot. ñooy tàggat seen yaram ci suba teel bi ñu tàggat leen ci bile académie ñoom ñaari technicien yi ñoo yor ay at a ngi nii banc wu équipe première bi. senior yi mat nañ ay trente cinq ay trente cinq personnes trente cinq jours junior bi même chose war nañ mat ay junior bi sax ñu ëpp quoi ñu mat nañ ay quarante presque. kon contrôle passe la ñu ëpp lu ñu leen di forcer pour ñu def ñun. man sama côté mooy côté boobu du côté physique du côté dara mais côté technique laay gérer ak ñoom. muy liggéey boo xam ne da ciy ànd ak ki nga xam ne moo leen jàngal liggéey bi. ñun depuis ñu ne si watu aar yi gis nañ méthode liggéeyam méthode gis nañ ko xam nañ ko maîtriser nañ ko parce que man lu mu dee ba dee ba dee rek gàtt gàtt man ak moom ànd nañ plus de 15 ans ëpp na ko bi may xale ba léegi moom ma yar moo ma teetee. ñu qualifié en 16e de finale coupe bu Sénégal engagé wu ci championnat bi ñoom technicien yi. ñu seen bëgg-bëgg ngir fexe ba bile club fësal boppam. objectif moom ñëpp ko xam ku ci nekk booy wuti dara rek xam nga la la fa tax a yóbbu. jël nañ huit match ci Sénégal bi élimination élimination directe la mais jël nañ bi huit match instant bi qualifié nañ seizième euh, bu fekkee championnat bi amagum nañ benn match benn victoire. muy club bu bari ay talent ñoom sax nag ñooy jox ay joueurs. yenn formation yu mag yi bu Ligue en sénégalaise lu ci mel ni Jàmbaar FC Génération Foot wala sax bu championnat européen. joueurs yi fi jot a jaar yëpp moo leen formé ñii ay à l'âge de dix ans lañ leen jël dem ñoom ba ñu signé pro te si condition yi la condition yi métti yi loolu moo la leen di kon moom am liggéey bi xam na si loo xam am na si secret moom moom am na si secret li jafe gars yi mais moom dafa xam secret bi. ci bile dispositif bokk na ci jëmm ju ndaw ji waaye nag. bu leen juum ci moom ay Aïda Diouf mi moom moo yore lépp lu jëm ci wàllu oto ci bile centre waaye tamit mooy toppatoo ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci bile club. waaw metti na moom métti na trop trop trop trop mais sama mi ngi ñuy soutenir ci lu bëri doon tey conditions yi dina métti et tout mais day def lu ne man des fois man maay togg ñoom li ñuy lekk et tout lépp man maa koy def lépp daal mi ngi waaye waaye yàlla baax ay joueurs yoo xam ne naam condition yi metti na waaye ñu ngi joxe seen kéemtalaay kàttan di rêvé nag dal di décrocher contrat professionnel wala sax ñu oo leen ci équipe nationale bi comme ki nga xam ne moo nekkoon seen coéquipier di Amara Diouf capitaine u sélection cadette bu Sénégal prestation ca CAN bu U17 bu ancien pensionnaire bu Solar FC moo feeñal bile académie nga xam ne papam bii di footballeur moo ko taxawaloon doonoon joueur ca ASFA ca di actuelle Suneyor muy Adi juuf moom mi nga xam ne moo taxawal ay at a ngi nii wu talent bi réservoir bi tamit moo dal di xëcc xale yi nga xam ne dañoo ñëw ngir fekkee jeexaay yu bile tàggatu yaram ñoom itam ñu ngi jéem lépp lu ñu mën ci bal bi xëy na ñoom it dinañu doon ay génie ci football Sénégal bi Merci beaucoup Awa Diallo et Pape Diop qui nous ont amené à la découverte de ce grenier de talent mun nañ ko waxee noonu et puis qui inspire pourquoi pas la mm. petite petite petite euh, catégorie euh, ndax euh, ce sont des enfants qui habitent ci environ bi ñoom aussi gis li nga xamante ne moom la ñuy def pour tàggatu moo tax autorités yi dañ war a jàppale bu baax euh, sport bi ndax mun na saafara lu bëri bëri ci li nga xamante ne moom mooy wàllu jeunesse bi Greg ma bàyyi la ak coach bon d'abord Aïcha Aïcha xaw ma Aïcha bi tey mhm. euh, la question qui me vient à la tête tey mooy comment vous faites pour réussir dans ces la parce que yéen a ngi ànd charrette yaa ngi seen biir waaw euh, gis euh, yéen a ko gisee seen bopp donc si ay conditions yu métti la ñuy liggéeyee benn benn terrain boobu moo nekk Pikine Nord terrain boobu kese moo nekk Pikine Nord fi ñu dëkkee ñun ñoo yor centre buy entraîner foofu Pikine Nord am na am na beneen uh, kii bu fay bu fay entraîner uh, banlieue Pikine banlieue foot donc uh, tey autorités yi mënoon nañu jàppale ci terrain boobu terrain boobu rek moo fa am ne serait-ce que au moins au moins ñoom même buñ ko synthétique wul ñu baliseel ñu ko ba nga xam ne au moins sareet yi dinañ ñu ñun dinañ mën a entraîner foofu parce que tey ñun li ñuy former mënatuñu wax pour Pikine la wala mais pour Sénégal la ñuy former moo tax ñuy former. donc waaw pour àdduna. donc euh, centre bi tey ñi fa génne kenn xamul nañ la toll euh, tey autorités yi ñoom ñoo waroon jóg ñun amuñu ça fait trois ans xaw ma quatre ans amuñu situation école football yi ASC la ñoom la ñuy jox situation su dara amee euh, école football yi la ñuy woo bu école yi mais bu situation jotee ñu jox ko. Euh, comment dirais-je euh, ASC yi. donc ana seen maire Amadou Diarra. Amadou Diarra ma nga fa ça fait trois ans man ren awma benn situation ci ak centre bu ma ak joueur yu ma yor awma benn situation du juróomi dërëm yoo xam ne dugg na suma loxo ren ma ma regroupé équipe bi di dem ay match match senior match junior match cadet. alors du Amadou Diarra dafa yàgg mairie Pikine duñ ma ne xamul li nga xamante ne moom mooy sa centre la centre bi moom moo njëkkoon nekk président bi ah moom moo njëkkoon nekk président nekkoon na président bi nekkoon na fi defoon nañ ko président bi maire yi lañ doon regroupé euh, mais pour ça fait trois ans xaw ma deux trois ans euh, que vraiment euh, xam nga nit soo koy woo téléphone doo ko jot te yàlla rek moo fi nekk. donc ñun ci la ñu concentré wu ne nañu liggéey mais bi ñuy liggéey nag am na nit bu baax bu ñëw ku nga xam ne ni dëkkul Pikine dama koy remercier te duma ko bañ a wax fii muy Lat Diop. benn Lat Diop lii ñuy sol euh, loisir yi moo ko jëndal équipe bi Lions foot moo ñu jëndal plus de cinquante ballons chaque regroupement moo ñuy jox regroupement moo ñuy jox transport yu ñu demee. lu ñu soxla ci équipe bi su mu ñàkk ko yëg xanaa su ko yëgee daf ci taxaw ba mu te tey mi ngi dëkk Géejawaay ñun ñu ngi dëkk Pikine bi nga ko waxee dafa ne dama la gis ngay liggéey mu ma xam ni yow mii ku la dimbali dimbali ne àdduna loolu moo tax ma lay dimbali di la jàppale parce que gis nañ ni yaa ngi def liggéey bu rafet tey euh, Paoletta bu nekk euh, Géejawaay fii la génnee Lyon su fut la génnee mm-hmm. Yaya Camara fa la génnee bari na ay joueurs yu nga xam ni foofu la ñu génnee donc euh, mën daal euh, je pense que ni euh, gars yi jàppale wuñ ñu autorités yi nekk Pikine jàppale wuñ ñu début di école bi di soog a commencé Amath Diarra doon na ci jàpp doon na doon nañu doon nañu jox ay situation dañu ko mais ça fait trois ans yu nga xam ni dafa woon ginnaaw. école ça, ça ne entre vous bien dafa am lu xew. xaw ma moo ma jaaxal. d'accord alors présent Euh, quand vous voyez ces images là lan ngay sentir. d'abord euh, ils ont beaucoup de mérite yaa ngi entraîné ay charrette ñu ngi romb xale yaa ngi fi taxawaloo di fo. fas yi ñoom ñooy traversé mu am ñu ko jël mu réveillé wu. Euh, c'est déplorable pour Mana parce que on est champion d'Afrique on vient de gagner la CAN gagné xaalis bu dul jeex fédération dafa war gëstu seet nag la mun jàppale monsieur Diouf parce que y' a beaucoup de monsieur Diouf au Sénégal yu am ay école de basket ah euh, ay ay école football jeunesse bi mooy suñu avenir il faut que ñuy jiite suñu dëkk yi commencé di ko di si bàyyi xel tuuti. Mhm. parce que lu ma gis fii tey rafet na rafet na mais amul moyen parce que amul mais terrain synthétique cherul def ay murs. autour. wala grillage sax ay grillage teg ndox pour xale yi jënd la équipement yooyu cherul ay dorsar dafa cher ballon dafa cher ah mais c'est la priorité ñuy diriger suñu sport ñu amul priorité sportive ñoom ñu ngi ci leneen kon tey dañu war a bàyyi ñu xam football ak basket jiitee sport yooyu parce que ñoom xam nañu parce que dañ ko dund xam nga soo dundee affaire di nga xam man maa ngi toog fii. du ma footballeur de. mais je compatis avec ces jeunes là parce que dañuy dañuy dem jàngi suñu wàccee ñëw tax taxaw ci naaj bu tàng bi di jël ay instruction ci ñoom monsieur Diouf xam lañu war a def man loolu mun naa ko identifier c'est important kon tey discours bi dafa war a suñu dëkk yi dañu war a bàyyi xel ci xale yi. kon da ngay dégg chaque fois ñu ne l'Afrique à soixante. cinq pour cent des jeunes de moins de vingt cinq à xaw ma trente ans. Mhm. ñooñu xale la ñu ñooñu la ñooñu la war a jàppale. kon suñu focal euh, suñu focus yëpp dafa war a nekk ci xale yooyu parce que suba ñoom ñooy nekk des futurs Sadio Mané les les futurs euh, Mendy Koulibaly c'est les futurs footballeurs qui vont aller jouer à l'étranger ñooñu nga war a jàppale parce que la formation se fait à la base. balaa ñu commencé di dem ay bitim réew fii nga leen war a jàngal football. absolument alors euh, euh, dafa am loo ci bëgg a yokk. allez waaw mooy Adja depuis 2009. Mhm. laa déposé samay papier fédération sénégalaise de football 2009 ba tey comité normalisation bi nga xam ne Sayer moom moo ko. jiite moo ko jiite woon boobu laa déposé samay papier ba tey mënuma fexe ba ñu reconnaître ma. ay récépissé équipe laay joué maa ngi maa ngi euh, huitième de finale mais récépissé zone B laay joué bu ma joué récépissé zone B année bi ci toog ma joué bu cosaan beneen bi ma joué avenir de Thiaroye depuis boobu ba pare may def ay performance équipe di qualifié ay huitième de finale yor benjamin minime cadet junior di former joueurs yi ñuy ñuy euh, euh, ku jógee cadet dem junior senior te mënuma fexe ba gars yi reconnaître ma. sa pensionnaire di sa doom nekk capitaine équipe nationale cadette. boobu fii ban argument la jox. parce que déposé woon naa ñu ne dañuy xaar euh, tout le temps euh, am na ay équipes yi nga xam ni sa fait presque ay ay ay ay équipes yoo xam ne reconnaître nañ leen tout le temps rek ñu waxee papier yi ñu ngi fédération ñu ngi xaar. vous êtes dem nga ci fédération. waaw parce que parce que parce que parce que man Malick Thiam moo ma déposé loon sama papier yi Malick Thiam moo ko déposé loon. depuis depuis depuis depuis. mais est-ce que vous avez pris la peine aussi dem ci ñoom laaj leen exactement ce qui se ce qui se passe depuis bi nga déposé léegi. parce que ci Malick Thiam rek nga mun a jaar après pour mu mu. pour mu wax la la. ban appel ngay lancé. waaw autorité yi ñu ngi lay seetaan. waaw maître Augustin Senghor certainement dina dégg sa message lan nga leen di wax. Euh, euh, lu ma leen di wax mooy que ñun euh, FC Solar lu ñu war a mën a reconnaître la. parce que tey ñun liggéey bi ñuy liggéey liggéey bi mu ci ay bi ñuy liggéey war nañ au moins au moins ñun ñu reconnaître euh, centre bi pour que au moins ñun ñuy mën a compétir parce que tey su fekkente ni tout le temps da ngay compétir ci tour jàmbur suba joueur bi dafay génn dal na ma ci benn joueur bu nga xam ni. non pas Pape Cheikh. ci joueur bu nga xam ni euh, euh, Lamine saako bu nekk impoli man maa ko formé. mais tey bi ñu demee ba nga xam ni dara desul lu dul euh, problème mu euh, transfert yi ak ak kii ba tey fii ma lay wax ak yow. amoo ci dividende bi awma ci dix francs d'accord mm, et il n'est pas le seul bu li nga xamante ne euh, moo koy mi ngi koy dal on espère que avec la révision des textes ndax Ousmane Diané Sarr ñëw na fi te normalement ci week-end bi war nañu réceptionner les nouveaux textes. que même traçabilité des joueurs ça pose problème et pour cela il faut que la fédération dotée wu d'une excellente administration loolu mënul ñàkk c'est-à-dire dimension football Sénégal léegi moom moo toll foofu te xëy na bu administration ba na mu waroon a doxee bu ko doxee woon rek kon jot nga say papier ba am na ci yenn yoo xamante ne munoo tàggat joueur mu dem di évoluer ci yenn club yi te li nga xamante ne moom mooy retombées yi par rapport ak transfert yi du du du yegg si ci yow loolu c'est pas c'est pas c'est pas normal très rapidement dafa am loo ci bëggoon yokk ñu mm-hmm. avancer. man affaire priorité la parce que tey suñu équipe nationale yëpp muy basket muy football. Mm-hmm. dañu basé wu trop ci joueurs nag étranger on est une germe, une génération retirée de ne plus gagner au football ou au basket. parce que tant que assurer leen relève bi au niveau local base yi les jeunes la ñoom nga war a former équipe nationale bu nekk muy football muy basket dafa war a am dafa war a am au moins cinq ou six joueurs locaux pour pouvoir dugg ci compétition internationale euh, s'aguerrir mun représenter Sénégal demain même suñu demee Europe mais mënoo jël suñu joueurs yëpp muy basket muy football ñu jouer dans les championnats européens américains pour ñu compétir parce que bés bés bu euh, ligne boobu amatul dootuñu gis dara. dina dina dina doy waar alors. Grégoire euh, très rapidement dañuy delluwaat euh, Lions Foot avec Awa Diallo et Pape Diop ñu dellu dellusiwaat waxtaan ak coach coach adjoint waxtaan aussi ak Aïda. Euh, Aïda euh, moom aussi dafay liggéey ci wàllu logistique bi sànq moom ngeen gis c'est aussi la grande sœur Amara am nañu ay témoignages yu ñu def sur le joueur. li ñu jàpp rek ja moom mooy jamono ji nag Amara la ñuy gis ci moom lu néew la que talent ba léegi sax jotagu ko exprimer ci li nga xam mooy les terrains Amara defagul dara sax Amara li nekk ci moom sax génneegu ko des na lu bari man mosuma tardé benn match am depuis mu nekk xale ba ni mu toll chaque jour damay dem seetaani match dafa yaru jox nit cër xam nit mooy kan lu sax sigg xool nit defagul dara. mun naa ne ñun ñoo ko de jour ndax ñun bi ñu fi nekkee ci stade bi nii di jouer lu ndaw la woon dañuy jouer ba mu yàgg ñu jël ko dugal ko ci biir na ko jouer te defagul dara dañ ko liggéey loolu dafa nekk tout tànk boo xam ne dafa ne dafa baax di tableau lu commencé liggéey def. billaay wala dañ ko doon tegloo fii nii nii ne ko teg fële ay polo ne ko xoola dóor ko fële te lu ndaw la woon. mu ciy liggéey di ci liggéey di ci liggéey ñuy liggéey moom mu nekk xale bu màgg màggagul sax ndax xale la ba léegi mais ñun ñun fi nekk ay moromam ñii ñëpp ay moromam la ñoo siyandoo moom mais yàlla dafa def xam nga sant dafa am dafa am centre bëgg liggéey xam nga ku sa papa di nekk entraîneur par force da boppam mais c'est le meilleur foo ko natt rek romb na ko ah gis nga li muy performance mi def nii si âge bii nii li nga ci moom moo ëpp li muy wane nii mais juste au fur et à muy dem di gën a comprendre waaw dinañ ko gën a xam. mais daal techniquement pour nga nattu ko jafe na trop parce que day génn fu ne waaw parce que papa ji da ko teel a si si lépp si lépp il sait tout faire daal maanaam waaw il sait tout faire. Ah, c'était la réaction de Babacar Thiandoum Amath Ka Babacar moom mooy coach principal bi Amath Ka moom mooy coach adjoint bi et Aïda Diouf euh, moom aussi mu bokk ci li nga xamante ne moom mooy liggéey bi foofu ci euh, centre bi euh, ñoom seen spécificité mooy. kii di am kii di Adi Diouf mi toog moom moo leen tàggat bi ñu nekkee ñoom aussi ndaw ñu dem ba amal seen reconversion cette fois-ci il retrouve ci li nga xamante ne moom mooy moom mooy banc bi mu nekk aussi lu am solo ils ont ki nga xamante ne moom mooy Amara mu débuté tout petit jusqu'à présent moment bi mu nekk capitaine de l'équipe nationale alors Adi Diouf quand vous voyez toutes ces images là toutes ces images qu'est-ce que cela vous fait waaw parce que gis nga ni ko Babou ak Amath waxee man euh, euh, sama équipe mosuma ko nangu jox kenn kenn mu koy entraîner am na ñu ma ko doon jox mais boo ko entraîner une semaine euh, su ma ñëwee dama koy récupérer mais diggante Babou ak ak Amath. bu ma leen joxee équipe bi bu ma feebaree ñoom ñu yor équipe bi ma toog benn jour ñëw seetaan leen entraînement toog di xool ñu entraîner ba pare ci laa si woo leen ñu ñëw man leen dootuma ñëw entraînement parce que gëm naa ni man. samay takkandeer ñoo nekk ci ci terrain bi seetaan ni leen seen match huitième ba ñoom trente deuxième yi ba huitième de finale yi ñoom ñoo coaché équipe bi ca kaw tribune bi laay toog di seetaan ma gis ni tey sama xel dal na ci ñoom ay liggéeykat lañ muy amaat muy muy muy muy muy muy baabu càndum baabu moom mooy conseil amaat heure bu joué ba pare moom da koy woo baabu yàlla moo nanguwul mais bokk na ci joueur yi dàq na football Pikine ba tey fii ma lay waxee donc euh, vraiment ñoom euh, sama xel dal na ay da nekk sama doom euh, moom tamit centre bi jaral ko lu nekk. Mhm. tout le temps man su ma demul moom mooy dem mooy gérer ak ñoom baabu mu am engagement nag ku am engagement la ci li muy def même Amara du ko may jàmm. moom waa chef yi dañuy wax ni moom mooy manager Amara <laughs> tout le temps amul benn match Amara bu muy tardé. damay feebar sax ñuy si yetuwaab jalaaw daf may forcer ne ma tëddal ci ginnaaw oto bi nañ dem rek fexeel ba ñu dem seetaani match bi donc ñu nekk ñu nga xam ni ñu ngi koy jàppale Amara dafa am ñoo xam ne ay staff yoo xam ni dañuy waxtaan ak moom mhm. heure bu match bi jeexee dañ koy woo euh, di ko critiquer lii nga waroon def bàyyi lii lii ak lii nga war a def te du du ñoom rek am na am na am na am na benn femme belge bu tudd Mélissa moom mooy grand frère wu euh, Onana bu nekk. Euh, benn waaw. ak euh, ak Babacar bu nekkoon adjoint adjoint comment dirais-je euh, entraîneur tënk bi ci jógee bu nekkoon jaraaf kii. Youssou Dabo Youssou Dabo. donc ñooñu ñëpp dañuy participer ci dañuy waxtaan ak moom. Mm-hmm. waaw dañuy toog dañuy waxtaan ak moom di ko di ko di ko delloosi si waaw bari ñu nga xam ne dañuy heure bu fubalee heure bu ñu fubalee ba pare dañuy waxtaan ak moom. Euh, di di ko delloosi. d' accord alors euh, Greg euh, très rapidement ñu ñëw ci tableau quart de finale yi ak li nga xam xamante ne moom mooy programme bi les quarts de finale de cette CAN U17 qui va plutôt qui vont démarrer ces quarts de finale mercredi incha avec l' entrée en liste du du Sénégal. bien sûr Adja ñu jàpp nag ne jamono ji li nga xam moom mooy ce tableau là c' est d'ores et déjà assez complet donc sax fi nekk nii. Euh, tout reste à déterminer entre le Sénégal ak Nigéria mi nga xam ne nag ñoom jot nañ ci génn jàppal ni euh, Maroc ak euh, ñi nga xam ne ñoo Algérie ñoom ñoo fas yéene jànnoo ñoom nag dinañu football ci li nga xam ne moom mooy le mercredi ce sera bien sûr à après nag match du Sénégal lay doon mu ñu ci jógee ñi di waa Mali ñoom nag seen rencontre ak Congo lay nekk Congo bi nga xam ne tam moom moo génn également ci groupe bu Sénégal nag moom mooy li nga xamante moom moo ñeel bileek tableau bu quart de finale bi alors coach Adi naka nga gisee euh, quart de finale yi ak li ñuy xaar ci li nga xamante ne moom mooy Sénégal euh, très rapidement balaa ñuy jàll ci basket bi gis naa Serigne Saliou mu wax euh, ay ay ay ay kàddu yu dal xel ndax il dit que pression bi jamono ji ndax équipe senior bi dafa gagné coupe d'Afrique équipe euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, junior bi gagné coupe d'Afrique avant équipe locale bi aussi gagné coupe d'Afrique donc il une certaine pression mais il dit que c'est une c'est une pression positive daf leen di gën a booster pour peut-être ñu donner le meilleur d'eux waaw parce que man euh, nu ma leen gisee woon ci seen match amical yi bi ñu joué trois matchs quatre défaites maa ngi koy wax euh, Amara ma ne ko match amical yi défaites yi ngeen di am moom mooy moom mooy mooy defaraat équipe bi donc tey jii gëm naa ni euh, équipe bi euh, mun na am dara ci ci quart de finale yi. Mm-hmm. mais ñu ngi jëm ci quart de finale yu métti. parce que lu tax muy métti mooy que benn match la benn match dafa métti donc il faut que ñu gën a gën a concentré wu ci li ñuy def gën a gën a gën a lucide. parce que match la bu nga xam ne vraiment moo match bi moo leen di yóbbu coupe du monde match bi moo leen di yóbbu final donc euh, match la bu nga xam ni daal euh, dafa bëri pièce trop trop trop trop trop. face à l'Afrique du Sud. waaw euh, con contre Afrique du Sud parce que parce que parce que gëm naa ni sur le plan du jeu Sénégal nu ma ma leen gisee ñoom ñoo gën a pare Afrique du Euh, quart de finale yi ñuy dugg nii euh, day bari piège donc il faut baax a baax a baax a baax a baax ba pare fàtte match yi ñu jógee mooy que trois victoire trois match trois victoire yooyu ñu fàtte ko xam ne ñu ngi demaati beneen compétition lañ jëm loolu bu ci concentré woo xam ne beneen compétition lañ jëm euh, mun nañu am dara daal. alors sur la sur le la préparation yaa ngi wax concentration mais également naka ngay aborder ce genre match là parce que ko coach Mayoro dafa wax lu am mooy xale. yaa ngi koy tàggat mais li ngay wax ci biir wax ci bu dee cinq nga wax xëy na ñaar la ci jàpp wala benn donc euh, ce sont des yoo xam ne match couperé la Sénégal mosul agsi à ce stade là ci catégorie bii nii U17 donc face des équipes yoo xam ne ñoom ñooy yu Afrique du Sud xam ne dafay bëri mouvement jeu très tey ces enfants là mentalement préparation boobu noonu lan la laaj pour génne leen tey ci effort bi nga xam ne moom lañ génne ci premier tour. waaw donc euh, euh, tey pour nga génne leen ci mooy que comme lu mu wax rek. donc euh, matt la bu nga xam ni dafa dafa laaj dafa laaj euh, détermination parce que gis naa li ñuy li ñuy li ñuy joué moo euh, seen match yi ñu joué nii donc loolu tey bu ñu ko bu ñu ko instauré mat mun nañu am dara mais pour pour que pour que ñu répété match yi parce que je pense que ni répété nañ trois match trois match yu nga xam ni même chose lañ répété dañuy ñaan pour euh, quatrième match bi ñu répété wu je pense que ni suñ ko répété euh, match bi du metti trop ci ñoom alors euh, beneen quart de finale muy euh, Maroc ak ki nga xamante ne moom mooy Algérie très très très attendu balaa ñu ñëw xëy na ci ban taxawaay la ñuy xaar ci gayndek Sénégal yi mooy les les lionceaux naka gisee affiche yooyu aussi. Maroc. Euh, ak Algérie nga xamante ne euh, tout le temps cette rivalité là euh, demoon nañ ba li nga xamante ne moom mooy CHAN bi sax Maroc mi nekkoon tenant du titre ñëwul mais cette fois-ci de dépassé nañ li nga xamante ne moom mooy ces contingences la ci wàllu politique cette fois-ci wala retrouver ci terrain bi. waaw je pense que ni xam nga match match football la donc il faut que ñu ñu jàpp ni match football la. te gis naa ni ñaari équipe yëpp seetaan naa leen seetaan naa Maroc gis naa Algérie mais gis naa ni match bu bu bu buy buy ubbeeku la match bu bu buy neex la buy ubbeeku la euh, man je pense que ni ñaari équipe yi ñoom ñoo tolloo niveau man ci lu ma gis daal gis naa ni match bu nar a neex la. sa coup de cœur kan la y a Mali kii est champion ci li nga xamante ne moom mooy champion UFOA A. Euh, moom ak Sénégal Sénégal moo nekkoon vice champion moom aussi gis nañ ni mu traversé ni mu prestation ci ci groupe am sorti aussi premier naka gisee Mali. waaw Mali Adja seetaan naa ko il faut waa Mauritanie mais mais Mali Mali Mali bokk na ci euh, ci équipe bi wu ma gën a gën a gën a gën a ragal. su ma la ko nëbbul bokk na ci équipe bi ma gën a ragal ci ci ci compétition bi waaw ci tournoi bi parce que dañu am ay joueurs yu nga xam ni vraiment équipe bi dafa huilé boo leen seetaanee seetaan naa leen ñu ak Sénégal euh, premier match bi bi ñuy gagné Sénégal ak final bi yëpp mais équipe bi dafa huilé et puis vraiment équipe bu am maîtrise xam lu ñuy def xam lu ñuy casser ligne yi seetaan naa leen ñu mais vraiment man dama leen seetaan ñu joué man est-ce que ñuy 17 ans la ñu am ma koy may tooñ sama waa man ko mhm. mais booy ni ñu kase lii ñi dafa doy waar trop trop trop trop trop nekk na équipe bu nga xam ne vraiment ah bokk na ci ci ci ñu ma gën a ragal ci tournoi bi daal te bokk na ci ñi nga xam jox naa leen favori Greg peut-être euh, bu fekkee na am nga question ci tournoi bi avec euh, surtout cette présence euh, des équipes de l'Afrique de l'Ouest Burkina mi ngi ci Nigéria mi ngi ci parce que ñoom ñaar ñooy daje Sénégal mi ngi ci Mali mi ngi ci ce qui veut dire que ci quart de finale yi les quatre sélections ñi ngi ci diggante UFOA A ak UFOA UFOA B et dañu gis ne temps yi ci compétition équipe ouest africaine yi franchement dañuy dañuy présente waaw waaw benn parce que parce que euh, liggéey bi la rek euh, donc liggéey bi moo commencé feeñ moo tax ñoom tout le temps dañuy dañuy dañuy dañuy président euh, lu ma wax rek liggéey moom amul dara lu ko mën a remplacer donc boo liggéeyul gars yi dañ lay dab il faut nga liggéey nga Sénégal gars yi dañ ko woon lu bari. Mhm. mais dafa liggéey ba dab gars donc moo tax nag suñu autorités yi war nañ gën a concentré wu ci gars yi ñu gën a liggéey parce liggéey rek moo fi nekk amul leneen lu fi nekk waaw man loolu laa gëm dama gëm ni boo liggéey da ngay fayeeku tant que liggéey loo mënuloo fayeeku alors euh, la dernière question malheureusement le Cameroun ki euh, qui a été éliminé Cameroun bi nekkoon tenant du titre parce que ci fàttali en 2021 normalement dafa waroon am kan malheureusement euh, CAN cadette Covid yeeg yooyu mu indi un peu jafe-jafe pour la génération bi nga xamante ne Malick Daaf d'ailleurs moo leen coaché woon malheureusement mais cette fois-ci génération bi am na chance mais le Cameroun malheureusement qui a été éliminé. waaw ah, Cameroun euh, <laughs> mooy lu ma rek parce que euh, euh, tout le temps moom moo doon moo moo nekkoon ci kaw ci kaw ci kaw équipe yi tout le temps Cameroun ngay dégg. Mhm. donc gars yi dañu liggéey ba dab ko dañu liggéey ba ko moom moo ko indi lii donc vraiment. ñoom tamit dañuy liggéeyaat nañu liggéeyaat jéem a jéem a parce que parce que loolu moo fi nekk euh, comme lu ma la wax boo liggéeyul rek gars yi dañ lay dab il faut ñoom tamit ñu tirer ca leçon gën a liggéeyaat gën a préparer waat seen petit parce que base bi mooy petite catégorie bi waaw parce que il faut nga liggéey ci suuf mm-hmm. waaw gis nga euh, Sénégal war nañu remercier CONEF bu baax a baax a baax a baax parce que CONEF euh, mi ngi def liggéey bu mucc ayib mi ngi def liggéey tey ji ñoom amara yi yëpp ci côté CONEF nañu génnee mhm. jër ci bëri tey ci ci ci ci ci foofu lañu génn donc euh, di leen remercier di remercier suñu président bi Alpha Dabo mhm. waaw di ko wax mi ngi def liggéey bu mucc ayib bu bu bu extraordinaire buñ ko buñ buñ ko fàtte mhm. des fois dañuy ñëw rek jël euh, li nga xamante ne moom mooy liggéey bi yëpp xëpp ko ci yenn centre yi wala académie yu classique yi ñu fi gën a xam général foot jàmbaar Dakar Sacré-Cœur c'est vrai ñu ngi abat travail bu extraordinaire mais des fois avant dafay am ñenn ñoo xamante ne mm. li ëpp solo ñoo ko ci def après bu ñu fa jógee nag soog a jël li nga xamante ne moom mooy labelu génération foot wala jàmbaar wala yeneen centre ou académie euh, ñu ngi leen di jëfal mais aussi bu ñu fàttee li nga xamante ne euh, moom moo moom moom moo jiitu woon euh, donc très rapidement on va parler de la Ligue 1 avec euh, la vingtième journée soog dem ci basketball bi et puis aussi souligner li nga xamante ne moom mooy li ñu Sud Soudan finalement dafa dafa dañ ko rattrapé ndax gis nañ cette fas yi CAF taxaw bu baax ci lutte contre faute ci ci âge mais le problème mooy seen réglementation bi dafa xaw a problème surtout ak euh, élimination Zambek yooyu on espère que Wakaaf surtout fi nga xamante ne moom mooy ci wàllu seen commission technique boobu dinañ gën a xoolaat li nga xamante ne moom mooy réglementation bi euh, Grégoire ñu wax ci vingtième journée bi soog a dugg ci basketball bi. vingtième journée ja boo xamante nag tey liñ ci gis moom mooy ndam li nga xam ne tey jàmbaar am na ko ci kaw le stade de Mbour benn bal ci dara ci kaw nag Dakar Sacré-Cœur tey. CAF bu Dakar moom moo fa mujjee lijjanti rek benn bal ci dara tam diggante US Gorée ak Sonacos ndam demul ndam dikul ku ne ci nekk dugalul benn bi Snaps Excellence à domicile dafa daal di nermeeluwaat tam ci kanamu Géejawaay FC Linguère moom dafa daan ñiy diwaat te nga jëf si ñaari bal ci benn général am ndam ñoom ñooy waa AS Douanes entre nag Pikine ak Casa Sport loolu derbi la woon waaye foofu ndam demul ndam kese Et au sortir de ces rencontres qui se sont déroulées durant le week-end, samedi, dimanche, changement au niveau du classement avec euh, le club de Denis Biramda ou Génération Foot qui est désormais leader. Les académiciens avec 38 points actuellement, suivi nag de Jambar mi nga xam ne tam également 38 la am Guédiawaye FC nag moom moo wàcc marché bi ak 35 points moom mu ngi ci troisième place bi rawee nag 2 points ñi nga xam ne ñooy waa Casa Sport moom moo féete à la quatrième place ci classement bi li a toll ci 33 points Gorée ak Pikine ñoom ñoo ci tegu ak 27 points jaraaf Tëngéej FC ak ñi doon Dakar Sacré-Cœur tam statu quo la ku ci nekk 26 la am Sinawar Mbour ñoom ñoo ci tegu ah, ci biir ah, zone rouge bi nag on retrouve tey la Linguère bu Amara Traoré moom moo fa ci ginnaawam il y a ah, le CNEPS excellence xam ne moom journée dañuy wéy rek muy gën di lëmasu ci li nga xam ne moom mooy ces difficultés Adja. Euh, presque mi ngi touché relégation alors Penda très rapidement soo ñu soo mënee cinquième journée alors lis euh, bëreetul ce n'est plus que six li Linguère xaw na réveillé wu à domicile am na ndam ndam boo xamante ne am na solo mais aussi attention à l'AS euh, Douane euh, peut-être Adi Diouf ban commentaire nga ci mun a def Casa Sport mi ngi résister mais boo moytuwul le titre va se jouer entre Génération Foot Diambar ak Guédiawaye FC wala Casa Sport n'a pas dernier mot. mi mais mais mais euh, génération foot euh, dafa nax gars mhm. parce que génération foot fi mu jógee dafa xaw a sori trop. waaw mu sóoruñu ko woon nii mais mais man lu ma gis daal mooy que génération foot euh, jàmbaar ak ak géejuwaay kii bi du génn ci ñoom ñett yooyu D'accord. Alors, il euh, y a mon message pour me dire que le Nigeria a fait forte impression avec un impact physique et mental. donc euh, euh bravo au <laughs> oh, Nigéria Kare merci beaucoup le message est passé n'est-ce pas Kouz alors très rapidement ñu dugg ci basketball jox nag euh, Jo Lopez kaddu gi avec euh, li nga xamante ne moom mooy Coupe Saint-Michel ñu disputé ko démb diggante AS Douanes ak AS Ville de Dakar Aïssatou Dia moom moom nag mujjee am ndam ci li nga xamante ne tey moom la ñu teewoo yoon la fête du basketball sénégalais muy nag une rencontre boo xamante nag ça s'est gagné sur le fil ak benn point boo xam ne moom moo dox seen diggante nettali gi ak Babou Ndour. Aïssatou nañ seen cinquième trophée jëm ci wàllum coupe Saint-Michel ñu am ko ci samedi ji fële ca stade Marius Ndiaye. te ñoom douanier yi ñuy gagné sur le fil équipe bi nga xamante ne moo di AS Dakar ci final bi mu doon. 75 74 mu doon victoire boo xamante ne am nañ ko waaye métti na lool ndaxte dafa nekkoon rencontre boo xamante ne daa bëri woon ay rebondissement te équipe bii di AS Ville Dakar bi match bi tàmbalee rek lañ ërtal AS Douane ndax ñii di gabalu yi amuñu woon la ndax ci premier quart bi 13 points rek la ñu te jamono yooyu équipe bii di AS Ville de Dakar marqué 17 points. waaye gonay paa bi Guèye yi ci deuxième mi-temps bi la ñu li nga xamante ne moo di la main marqué 27 points deuxième quart-temps bi mujjee doon 40 à 33. mu doon écart boo xamante ne amoon nañ ay jafe-jafe pour garder ko ci troisième quart-temps bi ndaxte waa AS Ville Dakar dañoo renversé li nga xamante ne moo di tendance bi. troisième quart-temps bi mujjee 52 56. ñu jàpp ne expérience AS Douane moo def différence bi ci quatrième quart-temps bi ndaxte dañoo pousse ñi nga xamante ne ñoo di goney libaas fa yi ñuy def ay erreur te noonu sax lañ ko jàppee ba mujjee jël ndam li ci quatrième quart-temps bi ñuy wax ne. coupe Saint-Michel bi mu nekk premier trophée bu saison bu AS Douanes alors euh, félicitations au euh, Gabelou et puis tous nos encouragements à l'AS Ville de Dakar juste après cette rencontre d'ailleurs Babou Ndour s'est approché de Libas Faye coach Libas ak Mamadou Gueye Pape dellu si nañ Adja ci déroulement rencontre waaye aussi li nga xam ne mooy les détails qui ont fait que tey l'AS Douanes a gagné mais également détails yi nga xam ne tey ñoom ñoo def ba AS Ville de Dakar ñàkk final bi sur le fil. mën naa wax ne match match bu méttee métti métti la woon du début à euh, ñu fin ñu benn équipe bu AS Ville de Dakar bi nga xam ne vraiment euh, euh, dañu baax fépp si côté men bi si côté pivot yi si côté ailier yi. mu nekk benn match boo xam ne vraiment dañ ko xeex de la première à la dernière seconde pour mu am victoire bi mu koy. mais AS Ville de Dakar soo xoolee depuis cinq ans yi nëpp ils sont en nette progression euh, soo xoolee seen parcours Coupe Saint-Michel dañu dóor Duc dañu dóor GIA. donc euh, du équipe boo xam ne équipe bu ndaw la ça veut dire tout simplement que y a un très gros travail qui se fait au niveau de l'AS Ville de Dakar depuis euh, des années. bu yeboo ñu xaar leen si compétition yu mag yu majeur yi yu si mel ni Euh, championnat ak coupe du Sénégal parce que vraiment euh, ñu ngi liggéey liggéey bu am solo. Dakar équipe bu mag la gagné na ay équipe yu mag la gagné balaa muy ñëw si final bi donc ñun xamoon nañ bu ñuy ñëw match bi du nekk match boo xam ne dafay yomb dañoo waroon xeex ba mu jeex pour mun gagné final bi. sama performance liggéeyu équipe bi yëpp la joueurs ñoo ma wóolu coach yi day teg attaque yoo xam ne man dinaa nekk à dinaa confortable joueurs a di ma tegal écran di ma jàppale di ma défendre parce que ku dugal tamit dañ laa défendre donc xam naa ne liggéeyu équipe yëpp la loo xam ne tey la feeñ rek mais ñoo ngi siy liggéey bu yàgg voilà c'était plutôt la réaction de Mamadou Gueye Pa bi ak mëneur bi euh, Jean-Jacques euh, Boissy d'ailleurs moom mooy MVP de cette euh, rencontre l'international sénégalais dañuy des ak ñoom ndax bu ñu fi jógee ñu ngi wàcc jëm Rwanda xam ngeen ni Sénégal ak représentant di AS Douane ñoom jàll nañ ci li nga xamante ne moo doon conférence Sahara ñu amaloon ko fii ci Dakar Arena ñu jël deuxième place bi derrière Abidjan Basket Club donc nag comme conférence du Nil bi jeex na ñu amaloon ko fële ci Caire léegi nag les quatre meilleurs fu ci nekk ci conférence yi ñuy huit dañuy daje fële nga xamante ne moom mooy Rwanda la capitale euh, bu euh, euh, fële nga xamante ne moom mooy Kigali capitale bi ñu amal fan nag li ñuy dippee final eight ki nga xamante ne moom mooy Jean-Jacques Boissy ak son coach waxtaan nañ ci aussi. dellu si dañoo jaar ci importance bi nga xam ne non seulement tey coupe Louga bi am na ko aussi waajtaay bi nga xam ne moom moo nekk ba su ko basketball Africa League bi le ak ban taxawaay la fa AS Douanes war a am. waaw Fevereero la mën naa wax ne Fevereero euh, miin nañ ko ndaxte dooroon nañu il y a deux ans cela fële sa euh, Mozambique daaw tamit moom moo dooroon dugg fii si dakaar xam naa fii foofu fii ñu nekk moom ñu ngi naan euh, seen xel dal na wante ñun ñoo war a pare su boobaa ndaxte soo demee si Kigali soo gañee da ngay continuer sa chemin soo pertee da ngay si waat dañ koy jéem a aborder ak ak confiance bu bëri moo tax ñu bëggoon gagné final bi pour mën gën a confiance dem mais du ñu wax ñu ñëwee favori mais tamit deuxième lañ jël du coup dañuy dem confiance jéem a gagné match yu ñu am. Euh, garde gardant la tête sur les épaules objectif bi je pense que instant bi nii je me vante pas mais dañuy dem pour jël chance bépp bu ñu mën am yor nañ moyen yor nañ coach yor nañ joueur yoo xam ne war nañ mën dem ba final incha pourquoi pas gagné ko. e c'est tout le mal qu'on souhaite au, Gablou. Euh, rapidement, quelles sont les chances cette fois-ci ñu dépasser cap quart de finale yi première édition yi jógoon nañ quart de finale malheureusement foofu la ñu arrêté wu ren on espère quand même dem jàll pourquoi pas ci demi-finale yi bokk ci quart d'as bi. waaw pourquoi pas demi-finale parce que tey douane euh, douane am na équipe bu baax am nañu jeu yu baax dans tout à tous les postes à l'intérieur sur les ailes sur le meneur de jeu et ils ont ils en confiance gis nga match bi contre AS Ville de Dakar cette expérience moo tax ñu gagné. parce que comme jeunes ñu ils avaient plus de jambes de basket parce qu'ils ont participé ci bal bi donc ils sont venus dans dans le quatrième quart-temps ils sont vraiment imposés sur tous les plans du jeu sur le plan tactique sur le plan physique et sur le plan des tirs également donc ce qui est important suñu demee Kigali itam euh, ñu focaliser. parce que équipe bu nekkoon foofu première édition bi c'est pas la même chose. Mm. équipe bu Douane bi tey moo ko doole équipe bu nekkoon foofu il y a il y trois ans de cela il y a plus de cohésion au équipe euh, ci équipe Douane bi pa bi qui est mon jeune frère a a gagné encore en maturité et en expérience pour ce genre de compétition il sera prêt moom moom dina pare pour euh, Rwanda. je suis confiant. beneen aspect bi am importance moom mooy l'AS Douanes dafay quitter son public pour dem beneen environnement lay doon également face à des équipes yoo xamante ne ni ah, mu ngi koy souligner sànq c'est une boo xam ne mine na di gagné tey ces équipes sénégalaises là donc sur le plan la préparation comment l'AS Douanes ci boppam war a yegsee tey ci rencontre boobu noonu. léegi ñu ci phase finale yi c'est éliminatoire direct. Mm -hmm. tu joues tu gagnes tu euh, tu euh, donc euh, comment approcher ces matchs-là, c'est c'est différent parce que il faut amener ton jeu à un niveau supérieur, cest à tous les à tous les euh, secteurs du match. Autant pour les entraîneurs, au niveau des meneurs de jeu, euh, joueurs à l'intérieur, joueurs sur les ailes, jouer avec beaucoup d'agressivité et asservité également parce que euh, parfois ñun au Sénégal dañuy euh, on se réchauffe pas avant ay deuxième troisième quatrième quart-temps match yi nag dès le départ da ngay commencer waaw comme di ci anglais get out of the gate running da ngay commencer rek daw. li gars yi di wax da nga nekk. waaw da nga nekk voilà il ñu nekk si ñu teg fi di di caaxaan parce que on n'aura pas les spectateurs ou bien les supporters ils sont tous Rwanda ou bien ay anglais ñoo fi nekk parce qu'ils sont beaucoup plus proches du Rwanda donc foofu da ngay bloquer yëpp. dugg ci train bi reyante loolu loolu mooy sport le sport moom amul maa ngi joué kër ga wala à l'étranger da ngay bu baax mentalement et physiquement et dès que tu rentres cinq contre dañuy def bruit mais en grand sportif on nous apprend à étouffer les bruits mën nga nekk ci terrain football wala basket gars yi di yuuxu yow lu nekk sa kanam rek moo important loolu yëpp ça vient ci entraînement te je man wóolu naa douane qui vont faire une bonne prestation euh, à Kigali. alors Joe Lopez kii di coach bi daf may permettre ñu duggaale très rapidement ci li nga xamante ne moom mooy sunu beneen sujet bi muy sunu dernier bi la gestion du basketball sénégalais moment bi euh, kii di Mamadou Gueye Paa bi dafa sulu ñëwoon te ko doon wax di ko wax mu nekk benn leitmotiv que joueur bi dañu ñàkkoon repère c'est-à-dire au Sénégal mais c'est comme s'il jouait pas au Sénégal parce que salle bu mel ni ubbi luñ ko basketball lu local loolu mu indi beneen beneen problème parce que dañu manqué woon repère parce que salle fermée la ñuy bu ci mel ne Dakar Arena bu ñu demee Kigali aussi parce que même chose dañ fay fekk euh, cette fois si naka la ñu mun a def da ko ci boolewaale ci problème yi jamono ji basketball Sénégal di di dund. bon loolu Adja euh, wax nga lépp mooy suñu manque de gestion ci basket bi. Mm-hmm. ak manque de vision. parce que mënoo dugg ci ay compétition comme ay BAL ay compétition internationale ci bitim réew après doo xalaat euh, salle booy joué ci angle ñu ngi ne de perception mooy c'est-à-dire xam nga soo dugg ci terrain basket lu gën koowee euh, toit bi le plus difficile est ton tir à moins que nga entraîné dans ces conditions la Marius Ndiaye le le toit un peu bas soo fa tamee sànni nga dem Dakar Arena ça devient totalement différent parce que Dakar Arena c'est même chose que l'Arena de Kigali wala nga dem Madison Square Garden à New York donc léegi il faut que en tant qu'entraîneur ce que Pape dit c'est réel parce que da ngay ñëw nga sànni nii ngay sànni jékki-jékki rek toit bi gën a yéeg donc tu vois tout ça y compris euh, le panneau de basket et si tu t'entraînes pas dans ces conditions-là c'est euh, c'est ça devient difficile pourquoi on ne joue pas à Dakar Arena man xaw ma il faut peut-être convoquer les gens de la fédération ñu ñëw fii wax lu tax ñu am stade de quinze mille spectateurs ultra mo du fa jouer benn championnat la wax du n'importe quoi mais moi ce que je dis que tey dañu war commencer utiliser Dakar Arena Marius Ndiaye et dans un état catastrophique ku dem mu Marius Ndiaye da ngay rus toilettes yi doxul veste euh, salle de salle d'échauffement bi c'est inexistant le plancher il est pourri gaa yi ñu koy dëbb daaxee comme on dit en français rafistolé les panneaux de basket sont soudés c'est pas légal pour des compétitions internationales tey basket da ngay jouer euh, avec un cerceau rétractable mooy ba soo jugee smash wala nga dànk mu ngi si langaamu affaire bi àndax yow am na poids de plusieurs centaines de kilos boo xam que du damm ils mettent ces jeunes là dans des conditions très difficiles parce que c'est soudé xam nga mën nga ñëw parce que booy léegi dañu am doole mën nga ñëw tëb la nga am ci affaire affaire bu euh, damm daan su ko gaañ la le parquet mën nga ñëw euh, glisser gaañu c'est que des problème pour ça donc il y a quelque part dans notre gestion dans notre basket où nit yi xamuñu parce que lu tax xamuñu mooy ñuy jiite suñu basket musuñu basket président fédération musuñu basket xam luy basket moom da nga koy invité ci plateau que ñu mu ñëw toog ak basketteur ñu wax affaire basket. tu vois manager la non voilà. ban manager si c' pas un manager. cest à celui qui est à la tête de la. discipline c' est pas un manager gis nga te aujourd'hui euh, la famille du basket. c'est tous les anciens internationaux c'est tous les anciens basketteurs et basketteuses ñoo révolté wu contre la situation aujourd'hui au Sénégal parce que tey on est dans une situation où da nga gis championnat bu jure quatorze mois dans la année doo xam fan lay commencer fan lay jeexee dans tous les pays du monde ñu ngi joué playoff man j'ai un ami au Kenya Kenya Kenya boo xam ko sax ay ñu basket ñu ngi pare seen championnat tey euh, mais seen finale yi au mois de mai juin comme ça ñu mun focaliser sur le plan international parce que les les championnats qui durent à longueur la ça nous porte préjudice sur le plan international dem nañu Égypte gàñuwuñu dara parce que lan suñu équipe il se basait sur les joueurs qui étaient à l'étranger et ces joueurs n'étaient pas disponibles on a amené quelques joueurs locaux qui n'étaient pas en jambes man je parle avec Pabi les gosses n'étaient pas en jambes ñu dem gàñuwuñu après ñu commencé wax oh tu vois euh, parce qu'on n'a pas eu tel tel joueur Sénégal indi na joueur yu tous ces joueurs internationaux qui évoluent dans les grands clubs du dem nañu Rwanda ils ont terminé troisième waaw tel troisième. mais <laughs> mais le manque de vision d'un le manque de présence au niveau des petites catégories xam nga tout à l'heure j'ai dama wax que base bi soo ko amulee doo gagné dara. joueurs locaux qui sont solides du ñu gagné championnat d'Afrique parce que mënuñu dem mënuñu dem championnat d'Afrique. yóbbu ay joueurs étrangers yu jógee ay France États-Unis Allemagne dugg leen def leen regroupement une semaine deux semaines un mois ñu gagné c'est pas possible il faut des joueurs à la base booy yu nekk fii Dakar ñu basket mais notre championnat euh, local il est faible il est très faible soo jëlee joueurs sénégalais yi rek yu joueurs fii sans renforcement des jours étrangers duñu dem fenn ils partiront nulle part. alors euh, a on vient de m'envoyer un message. vous êtes ancien international sénégalais yaa ngi liggéey liggéey bu am solo donc vous êtes vous avez cette légitimité là de pouvoir euh, être euh, li nga xamante ne moom mooy njiitu fédération euh, mais on on on m'envoie un message pour me dire pourquoi vous voulez pas militer fële ci Jeanne de Dakar. Euh, bon <laughs> il y a deux choses d'abord Keïta moom mooy suñu candidat euh, moi je suis président d'un club le Sud Academy est un club on nous a refusé notre réaffiliation parce qu'on a dit qu'on est arrivé en retard wolof waaw waaw voilà dañu bañ suñu réaffiliation parce que ñu ne que euh, le truc euh, nu mu encore la date limite dañ ko tëj c'était au mois de février ñun mosuñu jot lettre fédération ne am na date limite. benn circulaire waaw benn circulaire musuma ko jot en tant que président te man en tant que président c'est pas moi qui s'occupe du man maay toppatoo affaire réaffiliation bi mais loolu dañ ko def parce que dañu dégg que man dama bëggoon dugg ci comité directeur bi waaw man dama bëggoon dugg ci comité directeur bi gars yi interdit dugg ci <laughs> comité directeur bi parce que ñu ne que site réaffilié loolu à temps te ñun xam nañu de source sûre que am na ay équipe ay nit yoo xam ne que. ils sont réaffiliés au mois d'avril man ñoo naa avril ne ma déedéet parce que man que man tey mais loolu su amee fan nga ko mun a cest à ci biir fédération en dehors de président beeg yëpp war na am benn organe boo xamante ne mun nga dem ko fa peut xam nga dafa benn comité électoral bu ancien ministre bi teg en place mais avant la mise en place de ce comité électoral amul benn organe boo xamante ne par rapport ak euh, sa intégration ci biir comité exécutif bi parce que nekk président dafa am solo mais aussi siège ci comité exécutif bi aussi lu am solo la euh, amul fenn foo xamante ne mun nga dem euh, ñaxtu ko fa ne yow waxuñu la à temps alors que bëggoon nga réaffilier wu mais yooyu am na mais yooyu loolu beneen waxtaan la parce que man gis nga tey yaa ko wax de suma légitimité dama ko dama ko reyante dama ko ñax suma deret la ak ak suma ñax un double champion d'Afrique là premier africain de tous les temps à jouer en première division universitaire aux États-Unis amul man rek la man fii laa jógee dem directement États-Unis basket université tey ñu may wax que man awma droit wax ci affaire basket Sénégal loolu kenn mënu ko tere mu ko ko liggéey. d'accord ma bàyyi la ak Grey quoi. alors ci li ngeen yàgg di wax dafa am lu ci ñëw moom mooy les textes de 2015 uh-huh. boobu ba léegi waxuñu ko entre autres ñu ngi wax ne aussi pour dem ci élection li nga xam ne tey moom la candidat yi soxla en terme d'information il n'y a que bi nga xam ne moom moo bëgg a représenter moom moo ko yor donc euh, tey au niveau du ministère. fan ngeen toll ci côté boobu noonu mais aussi ces textes là yéen en tant en tant que président de club yi nga xam yéen a bëgg a bokk ñu ngi wax aussi ne Babacar Ndiaye dafa defaraat ay club fictif donc euh, processus boobu noonu yëpp jaxasoo boobu noonu nag naka la mën a demee boobu ak léegi ba lii yëpp taxaw. parce que nit yi dañuy toog seetaan xam nga Babacar Ndiaye dañ ko fal. yaa ah? ngi ngay wax. ministère ministère ñun. on est tous complices pendant huit ans dañu toog mu gérer ñu seetaan léegi mandat am jeex na nañu abal waaw parce que en huit ans deful dara léegi ñu commencé nag di wax ah oui on va dinañ def lii dinañ def lee am nga huit ans pour def ko defuloo ko. mais am na trois cinq trois. Euh, amul trois troisième mandat. lu tax comité bi nangul ko. parce que comité bi c'est parce qu'il a le droit. non le comité pour ñun. on remet en question sa légitimité aujourd'hui et on demande sa dissolution. ah oui avec des messieurs comme ah, euh, maître. Seydou Diagne et autres parce que suñu ñoom ce sont des personnes neutres hein. Ah, ah, non ils sont pas neutres je suis désolé parce que mënoo nekk neutre tey nga gis texte 2015 qui disait que Babacar euh, Baba Tandian lu daal Baba euh, président fédération actuelle. moo daloon Babacar Tandian. mais Babacar Tandian du Fouta aussi ah. non 2015 mm. grave d' accord ça. 2015 ñu bokk parce que amuloon club bu moom président le président sortant est inéligible Babacar Ndiaye moom tam amul club mais gars yi ci ci euh, texte yi bëgg a galgat texte waaw loolu la ñu def parce que y a des très clairs après ñu jël euh, seen règlement intérieur texte bi moo moo jiitee règlement intérieur ci règlement intérieur gars yi dem fa def ay affaires yooyu wax seen wax yu sew yooyu après nag léegi Babacar Ndiaye mun na dugg. mais vous est-ce que vous n'êtes pas victime de cette euh, décision la c'est-à-dire la politique de cette de la chaise vide est-ce que loolu aussi. parce mais... que le le mandat là maître maître Babacar a été élu Euh, ça c'est c'est c'est questionnable loolu moom mën nañ ko wax parce que man wóor na ma ko am na ay ay club yu voté pour moom waaw non fédération comme j'ai dit tey lu fa am jaadu waaw ñoom xam nañ ko waaw parce que dañuy wax seen bilan lan mooy seen bilan lan mooy bilan fédération lan la ñu gagné on di que ñoo gagné 2015 euh, championnat des filles ah, gagné wuñ ko CR CNPS ñoo ñoo ko gagné communauté comité de marche de normalisation ñoom ñoo defar yëpp ci ron plateau jox leen ko ñu dem gagné après foofu kenn déggatu leen. boobu ba léegi fournirul <laughs> yow. amul benn rapport du rapport financier boo xam ne nit ci mën nañ ko teg bët ñu wax soo waxee ñu ne la. ah jox ñu rapport bi ak kii de droit. waaw waaw mais qui de droit parce que nañ ay ndaje. ne waaw mais nañ la ay rapport financier. dégg ma nag ma wax la. qui de droit mooy kan mooy ministre. ministre mënul élire président. ñuy élire président ñu ne club la. mais li koy avaliser moom ci la bokk. ah waaw d' accord le ministère des sports. mu ministre amul benn ministre sport bu ñoo nekk mais mooy mais mooy seen waaw d' accord d' accord boobu d' accord naa la mais tey. kii de droit mooy président club yi ñoom ñooy voté président ñoom ñoo war a am rapport woo leen benn président n'importe quel président fii Sénégal woolee nga leen est-ce que bus ngeen jël benn rapport financier qui a été émis par un commissaire aux comptes mhm. laaj leen loolu di ngeen gis réponse bi mhm. kon léegi dañu war a bàyyi ay ay wax ay seen wax yu sew yooyu def ne di chaque jour euh, comité électoral bi depuis qu'ils sont venus def nañu communiqué contradictoire waaw tey ñu ne euh, les membres euh, les membres du comité sortant amuñu droit vote waaw ci tànk tànk bi rek ñoom ñëpp amuñu droit vote mais on a trouvé des clubs léegi nag bokk nañu ci club pour nekk membre du comité directeur. mais vous ce que vous dites c'est c'est grave. parce que oh, comité, grave. électoral boobu bi mu ñëwee quand même beaucoup on ont magnifié euh, seen seen taxawaay gis nañ ne benn moment benn candidature moom moo recevable lool muy bu met Babacar Ndiaye. pour donner beaucoup plus de chance. beaucoup plus de mais mais mais comme dafa mel ni ñun jamono ji rek ci politique bi conseil constitutionnel moom mooy valider valider bu ñu candidature bu ñu valider da ngay dem da ngay dem bëri ji te cette fois-ci comité boobu. mun nañ ne presque mooy équivalent bi c'est-à-dire pour ñi ñuy seetaan ñu comprendre te valider nañ candidature boobu maintenant ñu gën a yaatal reporter li nga xamante ne moom mooy date bi c'est ce qui a permis d'ailleurs a votre candidat Pathé mu mun a ñëw bokk ci li nga xamante ne aussi moom mooy joŋante bi maintenant est-ce que yéen le travail ngeen dem campagne yi parce que nag nañ waxante dëgg les présidents de club rek ñoom ñoo mun a tabb un président de la fédération sénégalaise de de basketball. est-ce que campagne boobu yéen a koy mëne est-ce que yéen a ngi dem ci ñi war a mun a voter pour xëy na li ngeen bëgg. ñu defal leen ko ñu ngi si dem mais pour le. parce que su ngeen bañalee mettre Babacar Ndiaye li daloon opposition bële dafa ne moo leen nar a dal. d'accord mais gis nga oh, ñu war ma la bëgg a wax dafa leer. Mhm. xam nga waxtaan nañu ci affaire comité électoral. Mhm. comité électoral dafa war a joxe fichier électoral comme ça suñu candidat xam. ñan ñooy voté loolu euh, président fédération sortant et inéligible am na fichier moom xam na ñan ñooy voté xam nga mënoo nekk ci benn élection yow nga am information yëpp te man am dara après nga bëgg man ma dem élection ak yow je peux pas gagner c'est pas possible. d'accord léegi léegi nous reste deux minutes très rapidement. président ñoom ñooy en fait. mais <laughs> voilà c'est le fichier électoral qu'on n'a pas encore reçu donc. Euh, Babacar Ndiaye am na ko Babacar Ndiaye xam ñu xam na ñañooy voté. mais je le pèse moom mooy président sortant tamit yéen leen ko ko bu ngeen toogee ba heure bi amu on a fait des courriers au comité électoral électoral ils n'ont jamais répondu musuñu tontu suñu ko euh, suñu courrier donc quand on parle comité électoral parce que la situation est grave il faut interpeller personne là parce que ñoom ñu ngi dugal suñu basket fenn boo xam que waruñu fa dëkk ñu en tout cas nous on nous on on vote ou bien euh, on appelle la dissolution de ce groupe. d'accord parce que aussi xam nga Me Seydou Diagne il n'est pas là moom moo jiite commité électoral bi et c'est pas la première fois liggéey bu liggéey bu mel nii mu def ko def na ko avec le football et les gens l'ont vraiment magnifié te man gisuma certainement peut-être mën nañu prouver le contraire mu mu mu nar a parti pris ci ki nga xamante ne moom mooy soit maître Babacar Ndiaye ou bien l'autre camp franchement Seydou Diagne c'est c'est c'est une compétence ko xamante ne kenn du ko kenn du ko naatable te je pense que li ko ñor mooy avancement li nga xamante ne moom mooy sport bu bu bu Sénégal mais très rapidement il nous reste deux minutes président vous est-ce que vous n'êtes pas en train de valider li nga xamante ne moom mooy seen défaite parce que là campagne temps yële on a yenn président club yi toog nañu waxtaan xool nañ li li xool nañ li li dox mais qu'est-ce que vous attendez yéen pour aller en campagne yow tu crois que ça c'est légal c'est mhm. mu woo euh, euh, président club yi à l'hôtel Fleur de Lys pour eh faire un compte rendu du basket au sortir de cette rencontre il dit que sur vingt cinq clubs vingt deux sont avec moi loolu campagne mais dafa war a nekk campagne moment non mënul nekk campagne. lu tax no mënoo woo. scrutin bi léegi lay di. non non mënoo mënoo wootee benn benn rencontre pour et pour faire pour rendre ci lu xam que moo euh, moo nekk ci basket bi te nga gën ci conférence bi te waxoo si dara lu am ñaata euh, rendre compte quel quel est le bilan financier bu am est-ce qu'il a parlé de ça des clubs qui sont avec lui. Mm-hmm. loolu. loolu c'est pas légal c'est pas normal. d'accord Greg boo amee benn question très rapidement ñu ñu ñu tëj ñu ngi commencé di dépasser cinq minutes. bon peut-être xanaa euh, fi ngeen toll nee nga xamu leen fichier bi. waaw que demu leen droit vers le mur. mais Sénégal vingt cinq clubs yooyu noonu muy wax bu waxee ne ça veut les vingt deux sont avec lui donc ça veut que moom euh, xëy na da ngeen jàpp quelque part ne am na ñoo xam ne dugal na ko si poche am ba pare. boobu je crois lan mooy yoon ngeen woo Babacar Ndiaye mu ñëw toog fi ngeen laaj ko. mais ñi koy lancé man maa ngi koy. lancé nga ko wootit président dimanche incha allah moom tamit mu ñëw fii donner sa version aussi. des des faits. ko defee muy équilibre. sa <laughs> benn l'autre semaine à venir aussi dinañ oote ki nga xamante ne moom mooy Pathé Keita. mu ah. ñëw cette fois ci ñu wax waxu programme comment faire pour discipline bi jamono ji fi mu nekk. mu jóge fii ñu am nañu gën a avancé euh, parce que. basketu Sénégal euh, du lu ñuy naataable amoon na fu mu toll. bu ñu mm-hmm. sañoon jamono ji dina am aussi feneen foo xamante ne foofu lañ koy séentu loolu nag liggéey moo koy andi ak concertation au sortir nag ci li nga xamante ne moom mooy assemblée général bi on espère que li gën ci basketball Sénégal wala ci ki ñu am ci moom yaakaar euh, moom la ñuy tabb te bu boobaa aussi on espère que dina yaatal ndax ku ci mel ni yéen kenn mënul gérer basketball te génne leen si. parce que aussi dafa am lu bëri loo xamante ne da ngeen ko def pour cette discipline là donc mënuñu ko gérer ba pare génne leen si mais yéen aussi il faut ngeen nangu tamit ki fi nekk que ce soit Pathé ou Maître Babacar Ndiaye ngeen nangu liggéey ak moom n'est-ce pas. mais xam nga quelques secondes. def neen ko pendant huit ans dégloo kenn wax ci affaire Babacar Ndiaye parce que ñun on est des sportifs. on respecte l'éthique du sport mais léegi mandaam jeex na. Mhm. am nañu droit wax. d'accord que ton bilan. est catastrophique mënoo wax dara boo xam ne dina dugg suñu nopp que tu as fait quelque chose de bon. d'accord merci beaucoup alors Penda très rapidement soo ñu mënee may la réaction de Samba Gueye c'est le président de la ligue euh, de basketball bu bu Dakar revenir na ci compétition bi ak yeneen yi xaar parce que désormais xam nañ demi euh, demi-finaliste yi aussi wala finaliste yi yi war a dem ci coupe de la ligue am na yeneen rendez-vous aussi yu yu ñuy xaar ci wàllu basketball bi. waaw xanaa mbégte parce que final bi joué nañ ko ci fair play liñ doon yaakaar yëpp euh, yàlla defal nañu ko moo doon ñu joué match boo xamante ne euh, dinañ ko si vraiment avec beaucoup de sportivité di profite di féliciter l'AS Douane l'AS Ville de Dakar surtout les supporters parce qu'ils avaient promis que dinañ ñëw def fête je pense que def nañ ko loolu lañ doon xaar sur le plan organisationnel aussi euh, di féliciter la Ligue de Dakar parce que chaque fois bu ñuy organiser ñun ñëpp dañuy am challenge mooy def le le meilleur Euh, invité yi kontaan nañ et je pense que loolu noonu dañuy gën a dañuy gën a mettre la pression pour que ñu préparer la finale de la coupe de la ligue bi nga xamante ne moom la ñu préparer le 17 juin incha allah. comme d' habitude xam nga ñun day day day telloo ñu nekk suñu deuxième édition coupe de la ligue li ñu bëgg vraiment mooy ñu ngi siy réfléchir on a beaucoup d' ambition li ñu bëgg sax mooy ñu dem jeu finale bi Dakar Arena loolu mooy suñu ambition on va aller chercher des moyens on va aller chercher et incha allah suñu ko yàlla mayee nañ de Dakar Ligue de Dakar à euh, loolu mooy vraiment suñu challenge. Voilà, euh, c'était euh, les explications de Samba gi président de la Ligue de Dakar par rapport ak organisation bi ak ambition yi surtout pour la finale de la Coupe de la Ligue. Greg, quelques secondes dafa am benn kii boo ci bëggoon bul xal pour Jo Lopez wala ñu tëj balay fenn di ñu génne. non euh, waxtu bi jeex na. <laughs> Greg keroog j'ai posé une question fii moom mooy euh, y a une vidéo boo xam ñu ngi gis muy circuler tout le moom mooy euh, l'état du parquet côté stadium Marius Ndiaye mais j'ai posé le débat daf ma ne carrément loolu noonu yëpp c'est de l'intox donc actuellement voilà donc loolu la wax loolu la wax même donc à fi ñu toll la ligue jël na disposition yëpp li na defaraat lu bees te ba léegi terewul li ñu gis ci CRBS ak UBBS euh, moom mooy euh, ñoom loolu la ñu pointé du doigt moom mooy état parquet bi waaye tamit li nga xam ne moom mooy cette gestion la par rapport à la petite catégorie comme par rapport à l'organisation aussi de ces compétitions là avec une saison qui dure extrêmement euh, mm-hmm. donc tey à votre niveau tey yéen ak ligue bi wala boog ligue bi dafa nekk wala boog famille du basketball boog naka la gisee tey très rapidement en quelques secondes. nga boole waale ko kàddu gu mujj gi. Ah, am na famille basket ñoo am na ñu ànd ak Babacar Ndiaye ñun nag yëpp lañu bëgg a boole tey. d'accord parce que euh, loo wax loolu mooy dëgg bi ana petite catégorie les championnats qui durent euh, quatorze mois yooyu amul amul fenn ci àddina bi mais nañ il faut pas ñu nekk di ñu wax que bi baax na avec lu ñu ñëpp. lu ñuy dund. non problème moom am na moom euh, Joe Lopez franchement problème am na pour ne pas être euh, nihiliste mais mais mais mais am na tamit loo xamante ne liggéey nañ ko mais aussi problème am na parce que basketballu Sénégal quand même en deux mille vingt trois mënoon na mënoon na toll feneen kàddu gu mujj ah, waaw mais loolu mooy dëgg bi deux mille vingt trois la suñu bilan non qualification ci coupe du monde waaw qualifié ñu coupe du monde pour nous c' du dara dëkk yu nekk entraîneurs yi. soo defee lu jaaru danay lay taax naa la jox benn exemple ab naa naa noppi. Euh, ak kàddu gu mujj. waaw kàddu euh, entraîneur y' a trois entraîneurs NBA ñu gagné championnat NBA Milwaukee Bucks Bucks Golden Harbour gañ dàq nañ ko keroog te gagné na championnat NBA y' a y' a deux ans de cela Nick Nurse bu Toronto Raptors mu gagné dàq nañ ko euh, Frank Vogel LA Lakers 2020 je crois gagné na. dax neen ko parce que amul résultat. mais vous vous pouvez pas cautionner quand même instabilité équipe nationale munoo ko. c'est un jeune euh, sénégalais. Euh, digne de son euh, nom Ngagne Desagana ñu jox ko mi ngi soog a démarrer dañ ko bàyyi mu continuer aussi. suñ fa eggee dinañ si waxtaan waaw. mais munoo ko cautionner quand même. man cautionné wu ko. man tey lu may cautionné mooy nu ñuy doxalee suñu fédération du yoon jaaduwul. kàddu gu mujj gi. mooy que nu ñu xoolaat texte yi bu baax. balaa ñuy wax dañuy dem ci élection parce que mënuñu am élection yoo xam ne que ci text boo xam ne kenn xamul nag 2015 la ñuy basé wu wala 2021. d'accord. Merci beaucoup Jo Lopez je rappelle que vous êtes ancien international sénégalais Adi Diouf euh, gu mujj gi lan lay nekk. waaw gu mujj bi mooy di remercier cette euh, TV ci opportunité bi ñu ma bi ñu ma may. Mhm. ba moom mun a euh, waxtaan ci ci ci yu bari. Mhm. waa di remercier tamit vraiment Adja. Euh, du ma kii te du ma remercier suma soxna. parce que nekk na nit bu nga xam ni madame Diouf. Euh, sonoon trop euh, Fatou Dieng. Fatou Dieng Fatou Dieng waaw madame Diouf waaw donc nekk na ku nga xam ne nii vraiment lu nekk daj na ko ci école bi. nekk mënul woon seet. dosaari ci lal bi façon bu nekk mais mu rek ba tey jii vraiment lii fekk ko ci donc dañ koy remercier bu baax di remercier sama famille yëpp. ñoom tamit ñu ngi depuis début ba léegi euh, ñu ngi jàpp ñu ngi ba may débuté lu nekk dégg naa ko kii dafa dof jóge Qatar mu jéem la defi leneen topp ci xale yi tey ñoom ñuy gérer au début wallaahi kii dafa dof jóge Qatar amul lu muy def topp ci xale yi boo xëyee fajar jiital leen nii ci yor jabaram war ko jox dépense tey gis nga après lañu comprendre la nga xam ni man amoon na fu ma jëmoon donc di remercier sama famille bu baax jàpp nañ ci bu baax a baax a baax di leen remercier di remercier ñëpp merci. merci beaucoup c'est nous qui vous remercions Adi Diouf di la ñaanal mission bi métti na difficile na ndax cible bi nga choisir moo moo métti mais na la si yàlla càppale euh, di la ñaanal sa doom ji nga xamante ne gis na li nga li nga dund yëpp mu bugg la ko fay ci li nga xamante ne moom mooy talent yal ko yàlla sàmm yal na ko yàlla aar et surtout yaakaar bi Sénégal am ci moom yàlla bu mu tas au soir du 19 mai incha allah ci li nga xamante ne moom mooy ci ay loxo Patrice Motsepe ñu remettre ko li nga xamante ne moom mooy trophée bi ce sera une première euh, pour le Sénégal ñi ngi ko koy ñaanal moom ak tout le groupe ak Serigne Saliou Dia ak staff bi ak délégation bi nekk foofu yëpp euh, ci Alger Greg gàddu kàddu gu mujj gi waaja di wax rek ne l'année des premières comme ni ñu ko waxee yal na doon tamit bésu Sénégal mais li ci gën a am importance moom mooy ñu ci mel ni Solar FC dañ leen war a dimbali parce que aussi boo xoolee conditions yi ñu entraîné tey ce sont des ne dafa métti mhm. déjà environnement bi favorable tey pour euh, am organisme bi ak ni mu war récupérer donc suuf si bëri na euh, tey ñu ngi tey di entraîné di sóoraale fas yeeg saret yeeg yooyu noonu alors que c'est tey une académie boo xam ne moom moo Euh, génne tey le meilleur buteur de cette coupe d'Afrique U17 euh, bu ñu ci jógee itam c'est une équipe boo xamante ne soxla na say papiers parce que tey imaginons bu gagné woon une coupe nationale war a dem tey au niveau africain naka lay demee. Mhm. loolu ñoom ce sont des yoo xamante ne aussi dans la gestion de notre sport dañu ko war a suuraale. ñoom ñëpp ñu ngi fi xëy na boo leen dimbalul financièrement aussi nga bàyyi leen ñoom ñu nekk en règle parce que c'est très important euh, petite catégorie dañ cee nekk boo xoolee tey suñu U20 dem CHAN ba équipe nationale A tey on parle de joueurs yoo xamante ne son sont des joueurs issus de nos centres de formation du jàmbaar kese du euh, génération foot du Dakar sacré kër kese ñoom ñooy génne mais tey ku la waxoon ne Amara ci saan bii nii la génne tey doo ko mm-hmm. ñu ci bëri ñu ngi bu ñu xëyee tey dugg ci biir suuf soosu noonu tu te ah, dañuy perdre seen temps rek. donc nañ leen gën a jàppale parce que tamit ce sont des des pères de famille wala boog tey des sportifs yoo xamante ne ni seen bëgg-bëgg moom moo leen yeggale fii tey ba ñu mën a gis tey garçon comme Amara génnee ci ci ay centre mel nii. et on attend d'autres garçons jóge fa et là on interpelle encore le maire du département de Pikine ndax. réservoir lu ci mel ni solaire ak ñeneen ñoom ñoo war a mun a euh, tàggat jox lu ci mel ni ay spikin nga xam ne fu nekk lay yóbbu turu fi nga xamante ne moom mooy sa département wane beneen xar kanam ndax bu ñu waxantee dëgg nag les sportifs foofu ca pikin am na foo xamante ne yóbbu nañ ko li ñuy dippee pikinité donc on attend ñi nga xamante ne ñoom ñooy les maires parce que sport compétence transfert la on attend beaucoup de l'État mais nous sommes dans un pays où tout est priorité ñu bëri balaa ñuy xalaat dañu naan dañu xalaat d'abord santé wérgu yaram li nit ñi lekk alors que sport bi da ci am loo xamante ne facteur bu am importance ngir gën a ful li nga xamante ne moom mooy koomu Sénégal donc on interpelle encore euh, les maire yi nekk foofa ca Pikine euh, di féliciter xam naa ne mënoo ko mais quelqu'un comme Lat Diop ci élan bi muy def on espère que d'autres dinañ ko def jëmale ko ci Solar FC wala Lens Foot ak yeneen ak yeneen ak yeneen centre wala wala wala académie en tout cas ça a été un plaisir de vous recevoir jaajëfal coach Babacar Thiandoum ndax ñoom ñoo ànd ak yow ak euh, Aïda di leen jox digga daje incha allah dimanche prochain même heure même chaîne jaajëfal Penda ci réalisation bi Pape Diouf ci li nga xamante ne moom mooy son bi rendez-vous dimanche prochain même heure même chaîne toujours avec le même plaisir ngeen jëf.